alkitab bismillahi rahmani rahim wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman waahibu naafi fi lmadayi saafi bismillahi rahmani rahim allahuma ya akramu bienvenue ala sayidina muhammadin ilfatixi lima uxliqa walxaatimi lima sabaxa naasiri lxaqi bienvenue bilxaqi walhaadi ila siratika almustaqimi wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaari alazim bienvenue ala hadihi lamdaha jalibatan ila limaani wal islaami wal ihsaani wa ila saxadati daaimati wa farih biha rasulillahi sallallahu taala alayhi wa sallama haysu quriyat aw kutibat aw nusira ilayha abadan amin ya rabbal alamina waj'alha mimma tataqana biha hurul ayn wal wildaanu fil jannati allati wuhida al muttaquna waj'alha min ahabbi sukri ilayka wa ilayhi alayhi salatu wassalamu بسم الإله ينمو لها بلا منايا ولا انتهاء بسم الإله ينمو لها بلا منايا ولا انتهاء بسم الإله bismillahi arrahmani irrahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli mbokk ñuy déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu su defeem seen rajo seen jotam tudde alkitaab ngeen koy am yor yor aj mu jot waxtu wi dellu si na di leen ko defal ci ngeen ci ànd ak seen mbokk alxaaj al imam al oustaz Alioune Mbaye seen mbokk alxaaj Serigne Mbacké Sylla ak seen mbokk Alioune Sall ginnaaw bi ñu sant sunu borom subhaanahu wa taala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa ñaan jàmm ci réew mi ak réew ko wër sama gaa yaa ni ci studio bi tabaarakallaahu fas yéene ànd ak ci kàttanu borom bi subhaanahu wa taala Oustaz Alioune asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Alxaaji Sëriñ Mbàkke Sylla asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. nu bàyyi leen ngeen nuyoon te gooy déglu. tabarkalla jërëjëf naa fay la nuyoo nuyuwaat la teg ci nuyu soppeek andi jàmm waa réew mi waa bitim réew beral nuyoo nag sama xarit bi sama cousin bi Sëriñ Mbàkke Sylla ñaan nuyoo bi yàlla na ko fekk ci jàmm ak salaam Hadj Mbacké jërëjëf Oustaz ñoo ngi lay fay nuyoo di la nuyu di nuyu mboolem ñuy bàyyi xel Sud FM seen rajo euh, rawatina suñ jotaay bi di al di fay nuyoo tey nuyu imaam alxaaji Oustaz Alioune Mbaye borom Pikine ak Dalifort ak Kër Massar ñàkk ak ñàkk borom ñàgg nu jotaay bi tëddee. incha allah dinañ ko daan defee lañ ko fas yéene wéyale def ko ñetti xaaj xaaj suñu laaj ngay indi say tontu bu disee jotee ñu bi téléphone bi ay ñu indi seen laaj ak seen i te gàttal ko bu disee demee ba teg fanweeri simili la ñuy jéem a ñëw tontu laaj yi nga xam te ñoo fi rot yomb ñu tontu koy yombal ñu nettu ko ba dellusiwaat incha allah Mbàkke ki bëgg a ñun ki bëgg a ñun oustaz bu 10 jotee 32 33. muñal maam Ousmane Barke mooy cëram. jigéen ju baax nangoo muñal. sëriñam Barke mooy cëram. soxna Fawa Duwele nangoo muñal. maam Ousmane Barke. yéen jigéen ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah. muñal sëriñam Barke mooy. yéen jigéen ñi lu ngeen mën di liggéey ci biir réew mi ak ci bitim réew asalaamaaleykum jigéen ju baax nangoo muñal sëriñam barke muy cëram ajaanay Maram Njaay Sud FM assalaamu Aja Isa Sud FM assalaamu aleykum mbaram Kawlax assalaamu aleykum Adja Tuuti Sey rajo Mbàkke asalaamaaleykum Sud FM Mbàkke dani siyaa ci Tëngéej asalaamaaleykum Xadi Seen Sud FM asalaamaaleykum Marie Rosalie asalaamaaleykum maam Diarra asalaamaaleykum. jigéen ñi xëy tabarkallahu di jam ca marché ba wut fa jën dem jaay ko am ca tuut te bokk ca kër ga yéen asalaamaaleykum. jigéen ñi nga xam ne tabaarakallaahu fa seet ñoo ko bale moo xam ci biir dëkk bi la moo xam ci penc mi moo xam ci mbedd mi jigéen yi bale asalaamaaleykum ñi nga xam ne ay ministre lañ wala ñu ay député wala ñu tabaarakallaa commissaire asalaamaaleykum jigéen ñi ari dium tabaarakallaahu ci njiital soxna Fat Diallo asalaamaaleykum madame Diop waa daaru ci bu Fat Ba ak ñoom fa nekkal ñëpp yéen ñëpp asalaamaaleykum les femmes madame Aline Badra Socé asalaamaaleykum sunu masaan xool montre bi mu teg vingt minutes jàpp benn jàpp ñaar ñu daal di ci studio bi waaye jigéen ñi nga xam ne ñu ngi ci bitim réew tey daan seen i doole tabarakallaa uuf xale uuf njaboot ga tey jéem a am ay orog luñ ca boole yéen itin asalaamaaleykum les sages-femmes asalaamaaleykum xanaa del soit ci studio bi rek ne oustaz Alioune asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu alxaaji sëriñ Mbàkke asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu tafaddala mashkurayni fa jazakumullahu xayra tayib tayib jërëjëf jazakumullah wa ahsana ilayk oustaz mhm. Eh, sëñ Mbacke yaakaar naa nii. Ah, <laughs> tey gën a gënati neex. <laughs> gënati naa neex <laughs> gënati naa neex. macha allah ni mu ubbee daa mel ni am na fu mu ko bas. Eh, jiital ci jigéen ñi. Mhm. ndeysaan nuyoo nuyoo bi tabaarkalla xam naa ña nga tudd seen xol tey ñu ngay xam. wallaay nga tudd sax gis nañ ci seen bopp. wallaay ndeysaan. ndax eh, nit amul lu dul bisam. dëgg la dëgg la waaw nit amul lu dul bisam. dëgg la amul lu dul soxlaam amul lu dul sëriñam. ba nu yàlla bëggee daal. Mhm. def na suuratu nisaa yi. Mhm. ñëpp dugg ci biir Hmm. ah <laughs> walaay waaw yàlla mooy njëkk yàlla mooy jigéen ñi cër ñëpp dugg ci biir. Hmm. Hmm. si ah, waaw. <laughs> mu tànn ci seen biir nag jënn jigéen. joxoon def ko seen njiit ñoom ñëpp. ñu tudde ko Sarr muy Mariama. <laughs> ndeysaan waaw tubaarkàlla moo tax moom suñu tubaab bi ko xasida moom te nekk tudde ko fusti mm-hmm. waaw raw nga jigéen ñëpp mariama ndeysaan ndeysaan est-ce que est-ce que kenn musu koo gis rek euh, kenn musu suñ bàgg yaakaar naa ni am la solo nuyoo bi li daan biteel bu nekk uh-huh. euh, la mu def la saañ bay xeeñ uh-huh. dëgg la ah? waaw dëgg la yaakaar naa la dëgg la kon biteel bi tey waxtaane jigéen la def <laughs> moo tax saañam bi di nuyoo jigéen rek lay xeeñ waaw saañ bi waaw <laughs> macha allah ndeysaan macha allah ustaas mel ni Mariam de jàmbaar la ah, Mariama waaw waaw ah, Mariama am waaw léeg-léeg moom laa daan Mariam rek Mariama ah, wax nga dëgg wax nga dëgg waaw noonu la noonu la na ci li ma ma gën a gën a gën a gëm alxuraan mhm. euh, Mariama fi ko yàlla teg ak li alxuraan wax ci moom mhm. bu doon lu nit di wax la mhm. kon wa sallam ci yaayam la koy wax ci lu wér wala mu wax ko ci doomam wala ci bàjjanam wala ci bàjjanam mbaa soxna sa ko nàmpal wala soxna sa wér nga wax waaye Mariama jur yonent hmm. ne moom ni moom yonent boobu def fii lu rëy ñëpp di ko waxtaane waaw keneen ñëw am nuy duut duutal alxuraan ñëw nag wax ci ay kooku loo xam nii waxu ci kenn bu doon am xel dong la kenn du ko mën a moo lay xamal ne alxuraan ji mm-hmm. jógewul ci moom mm-hmm. mm-hmm. gaa yi daañu wax ne kon abasa da koy dindi peut-être waaw critique yi waaw waaw surtout ahzab la ca nekk waxe xul waxeel nit mu dindi ko mhm. Mhm. waaye ci biir moom jottali rek wa maa mhm. waaw tanzilu min rabbil alamin wallaay ndeysaan nazala bihi ruhul amin ala qalbika oh, wallaay ndeysaan macha allah macha allah kon nag daa mel na kobas nga xool yi waaw <laughs> ci ci ci wéy yi léegi kon xam naa ñu door bismillah man sax li ma bëggoon nga jëkk ñu ko découvriral mooy kuy jigéen ndax ndax daal jar naa xamlewaat nag. waaw waaw. kuy jigéen. ndeysaan. fay naa leen nuyoo. <laughs> nuyu seeni soxna. Mhm. nuyu seeni doom yu jigéen. ak seeni jigéen ci boppam. lii rek. ak ku leen bëgg te fonk leen tey jigéen. ndeysaan sama maire yëpp rek. waaw dugalal ma ci maire yëpp. <laughs> maire yëpp a ngi ci biir <laughs> ndeysaan. ndeysaan Oustaz Alioune. Mhm. laaj bi dañ koo yàgg laaj waa àdduna. Mm-hmm. kuy jigéen mm-hmm. la tàmbali ca grec ya mm-hmm. ba baa nga ñëw ci chinois yi kuñ mas a laaj luy kuy jigéen rek sa réponse day day day day jàdd waaw sa réponse duñ ko mën a jëriñoo te ñoom ñëpp ndax xamuñu woon kuy jigéen di làmbatoo ko tontu lu dul loolu ak di ko méccita la ko duma waaw ñu gàddu laaj bi rek rek doctrine yëpp. doctrine doctrine yëpp. Hmm. Euh, civilisation yi yëpp. ku ñëw ñu ne la kuy jigéen. dëgg la ñuy tontu du baax. Hmm. <laughs> ba ñu am at yu bari. Hmm. am ku génn ci àdduna lépp <laughs> a mat eh. bind ba mat xel ma mat sëñ Mbàkke mu xam lu kenn xamul ñu indil ko laaj bi sallallahu alayhi wa ne ko kuy jigéen lam ca tontaloom lu waa adduna doxal ba léegi day xeeb tontoom ba di dem di jéem a récupérer jigéen indiwaat ko fi mu nekkoon ah mu ne ñu kii ngeen may laaj kum doon mooy ki nga xam ne yéen ak moom yéen a bokk menn maam mu leen ko xas mu leen koo dóor waaw tabarkàlla yaa ayyuhan naasu mm. ittaqu rabbakum lazi xalaqakum min nafsin waahida wa xalaqa minha zawjaha jigéen a ngoog jigéen mooy ki nga xam ne kon bi yàlla bindee góor mu ne cundum waaw mu ne ci cundum waaw waaw fas liggéey li ko yàlla indi woon alal ard ci kaw suuf diir bu gàtt doxalu ko sunu borom daal di bind jigéen ne ko yaa ngi nii boo jàppul ci liggéey bi du dox kon nag jàpp ci mu dox est ngir mu dox nag foog ngeen jàng wàlla ma aadamal asmaa kullaha bi njàngee ba nopp mu ne ko njàngu doyut demal nga defee stage uskun anta wa zawjukal janna ndeysaan koo koy jigéen tax yonent bi jëkkati ko teg ko fu mu tegul dara teg ko fu mu tegul kenn waaw ne mm-hmm. ne ci ngeen di am yaay mm-hmm. ci ngeen di am mag mm-hmm. ci ngeen di am rakk ci ngeen di am jabar am ci doom koo koy jigéen wa shukran ci si laaj ba am solo bi tër yi. macha allah. tubarkàlla. <laughs> macha allah <laughs> am na solo oustaz jigéen ñi noonu ñu ñu ko xamleel. xamle gu daw yaram la. na fi nga daaneele ndax ñooñu ñi ci am ñëpp kat ci kuñ koy am war nañ koo fonk. ndeysaan ngay am yaay di ci am jabar. Mm-hmm. di ci ami doom. <laughs> amaat ci rakk ak i mag daa mel ne kooku warees na koo ah, fonk tabarkalla kay loo ko loo ko jox ko jox rek wallaay ginnaaw bi ñu ko xam ne nag oustaz bu ñu ko mbëmbastalee ba indi ko ci jamonoy tey mhm. ak fi jigéen nekk jagleel ko bisub tey bi tax ñu di ko waxtaane mhm. jigéen moom mooy kan ca fa ko yàlla wàccee woon mhm. diggante bi ak état bi mu jéggi ba agsi ci état boobu tey boo ko yàlla wàccee suñ mbakke te jox ko lim ko jox te gàll ko médaille yooyu bu ñëwee tey ña ko ña ko bëggoon a moom démb mhm. ñoo ko bëgg xëccaat tey delloosiwaat ko mhm. indiwaat ko ci seeni loxo mhm. ñooñu ñooy ñoo ñoo ko indi tey di ko gëmloo yu amul solo lool di ko wan yoo xam ne dañ ko koy xoymet <laughs> waaw naan ko diwa ngi nii àgg na barab sàngam góorlu àgg fa ba noppi di ko tënk ci yoon wi loolu moo waral fi mu nekk nii moom tam bu amee bésub tey ñu koy waxtaanee. Mhm. dañ ko war a fàttali démbam. waaw mhm. ak ñi fi jaaroon démb te mel ni moom. seen yoon waa nga ne demal nga jaar ci ndax nga mel ni ñoom. Mhm. la woon a ngi fi. ñu ko def na woon a fi nekkul. yàlla na yéen. est-ce que est-ce que macha allah. sëñ Bakk loolu am na solo lool. Euh, xam nga nag ñu wax sa démb. day tax nga gën a góor ndeysaan boo gisee géwél yi. di di di fàttale cosaan. yooyu dafa am lu muy pikiraat. Ah, waaw waaw te fàttali ni jom. sa jom. Mhm. booy waaj a euh, bëri ji waaw booy waaj a dem defi leneen nga gis bàkk yeeg cogg yi yëpp. Mhm. dafa lay motiver. moo tax kon boo bu ma la nee kuy jigéen. Mhm. nga tudd ci grec yi. tudd ci chinois yi japonais yi. Euh, civilisation bu ci nekk. dafa am noo gisee woon jigéen. ba ci arab yi sax. waaw avant l'islam doon ñëw. am na fu ñu tegoon lis jigéen. tabarakalla. Wissa euh, ahaduhum bil unsa walla wajuhu muswaddan wa kadhib <laughs> yatawaara min al qawmi min su ima bushira bi ayumsiku ala hun hmm. am yadusu fi turab wallahi ala <laughs> lii rek bu ñu nekkee ca garan place bi hmm. nga si ne diw soxna si yeewi ku na hmm. ñëpp dañuy déglu nag bàyyi lu ñu doon jàpp di déglu ba xam lu muy wax bu ko defee waaj na la góor la amum jigéen nga jigéen ñëpp yuuxu la toskare nga alku nga dóor nga solo ko ci ëkk mel na ñooy may seen bopp booy ñibbi da ngay làqutu laa ilaha lañ daan def moom la alxuraan netti li ñu ko mhm. tabarkàlla mhm. kon koo koy jigéen mhm. Euh, euh, léegi nag Sëñ Mbàkke euh, léegi bu comme ni nga laajee oustaz dip ak léegi ba fi ñu toll nii nii gis nañu benn phénomène bu rëy boo xamante ni dañ ko dañ dañ ko gis ci jigéen ñi. Mhm. dëgg la mooy lu mel ne parité. waaw mel ni journée de la femme bi am yu bare bari yoo xamante ne jigéen bëgg na nekk leadership. wallaay waaw ñoom kay delloo na ji delloo nañukkal jigéen lool lay. gis nga ci dëkk sàngam. Mhm. ci réewi tubaab yi. Mhm. dafa am jenn jigéen daa xëy rek na doom ji kaa ñu dem ca jàkka ya ca ilimaan nga dugg ci lislaam waaw daal di jël ŋàmb ci loxo bi ñu ñëw. lu ko motivé waaw bi mu ñëwee. ilimaan ji ne ko waaw looy wut mu ne ko dama bëgg a dugg ci lislaam mu ne ko ana sa yaay mu ne ko mu ngi ci buntu jàkka ji xaar. mu ne ko ah lu mu ne ko waxuma dara mu ne ko demal woo ko mu ñëw mu dem woo yaay ji mu ñëw mu ne ko yaay yaayu kii mu ne ko maay yaayam. mu ne ko jullit nga mu ne ko déedéet. ah lu tax nga bëgg nekk mu doon jullit mu ne ko damaa. appartement bi ma dëkk damaa jàkkaarlook jenn jigéen ju am doom bu doom ji xëyee daf koy fóon ci jë fóon ko ci lex fóon loxoom door a xëy man ne waaw lu xew ñun mu ne ma ab jullit la man ta ma bëgg sama doom di ma defal noonu moo tax mu indi ko pour nga dugal ko ci diine kenn ah, kenn mësu koo gis donc loolu loolu mooy moo mooy jàngaleem alquran mooy jàngaleem sharia mooy jàngaleem lislaam ci wàllu jigéen <laughs> est que que ndeysaan euh, oustaz loolu foor na foor na ah, xam nga sëñ <laughs> euh, boo gisee euh, tey fi fi jigéen ñi taxaw mm-hmm. boo demee ci classe politique bi waaw nga dem également ci commissariat yi waaw dem ci instance yi fi ñu jëlee décision yi ndeysaan partout la nga gis jigéen ñi gàcc ngaalaam dëgg la dëgg yàlla Euh, ñu bëj euh, discours bu njëkk la naan jigéen waaw na na déggal jëkkëram. ajanaay ah. euh, këram d' accord baax na. mais mm-hmm. noo gisee poids yi. waaw adduna bi ñoom xam nga nun dafa am yooyu bu ñu ko defee dañ ci rax aada. Mm-hmm. Mm-hmm. bu ci aada raxee ñu dugal ci li ñu arrangé. <laughs> atte atte ni nu moom kay boo génnee sere dugal aada hmm. danga mën a dugal say bëgg-bëgg waaw aada aadaay gën a yaatu daal waaw aadaay gën a yaatu am lef bu xëyee soññ la ci dépense bi hmm. nga indil ko inna laa maa saabiriina hmm. <laughs> maa saabiriina amul place foofu waaw li nga ko deseeloon ca may njëkk ga indil ko ne yonent bi nee na jigéen jigéen mooy gi nga xam ne moom moo gën a oyof ah, ak may oyof ak may yaag moom rek tabarkal ndeke dafa ndeke dafa am mafhum kon. mu gën a yombe tànn fi mu gën a yombe bu aada duggee. ndeke tànn fi mu gën a yombe rek. certes xadis yi wér na. mais. context bi nga ko dugal. <laughs> la arrangé rek nga ni kii. loolu loolu la ci bari loolu lañ ko ci defee. moo tax moom ci barab bi nga xam ne ci ngay dem di leen ca fekk. Mhm. kenn mënul leen ca. dëgg la gis nga dawalkati oto yii. Mhm. boo déggee jigéen du accidenté ba la koo déggati. Hmm. waaw rek tubaarkàlla. ñoo gën a ñoo ñoo xaw a gën a tey tuuti. waaw mën leen xoos nag wala mbëkk leen. Hmm. waaye oto ba daanu na. mais ñoo koy def nag. waaw ndax jigéen na ne ci circulation bi. di di dar dar di jéem a nagul dara. Hmm. nga di ko kalasore naan ko pay waaye jugal faa yow. Hmm. xam nga dem looy day jaxase sa xelam. dëgg la mais oustaz jigéen nag ci jamono jii buñ koy waxtaanee ba toll fii. Hmm. war nañ leen a naa daal damaa ba xam surne bi euh, lu ñu leen jox la muy dëgg wala lu ñu leen di naxe la. waaye lu mu ci mën doon war nañoo xoolaat nag ndax ba xam ngi leen di yor wala déet. daa mel jigéen ñi oustaz boo ñu bari yoratuñ leen. niñ leen daan yoree bu njëkk seen coono bi ëpp yëpp bëgg a yor seen bopp tax eh, ñu nekk ci coow ci coono boobu loolu noo koy jàng du tëgg fa am solo mm. <laughs> mooy bi leen yonent bi alayhi salaatu salaam jëlee joxe réponse bu positif boobu dafa juróon ci ñoom seen noflaay jur ci ñoom noppalu ñu am yuñ féetewoo yu am solo yoo ñu féetewoon mu am solo ka leen ne woon du ngeen nit wala bokk leen moom moo dellu siwaat naan ko gis nga kii dalay nax moo la teg nangam sa miiraasum baay bi moo la xañ genn wàll ah sa sa sëy bi moo la bëgg a taaj barab sàngam fipp leen jóg leen nangam nangam léegi nag bëgg gëm loo jigéen ne ko moomal sa bopp ku la yor nga yor sa bopp ku la yortu nga yor sa bopp bu jigéen jógee bëgg a yor boppam nga xam ne nee na ku ko yor mu yor ku ko yortul mu yor boppam. loolu daal di koy indi ay complication ndax am amu jigéen léeg-léeg. du góor ñëpp nag. waaye am na góor ñu bu seen bo jabar amee vingt mille francs par weer. bala ñoo am jàmm vingt mille jeex. dañ ciy daal teg seen bët. dañ ci daal teg seen bët. te damay wax saa su ne. Hmm. ne ab sëriñ. Hmm. ak jigéen ñoo yem. Hmm. ku leen yërëmul doo leen dimbali. looloon est que du jigéen ñoo ko incarné Oustaz Mbaye ci wàllu liggéey nga xam ne jigéen joo gis ma nga naan damay liggéey ndax góor ñi yoratuñ kenn mhm. jàpp ne yow yaa war a doon léegi ku yor sa bopp ba nangootoo kilifteef googu ci waroon ndekete yoo loolu nag foofu la leen jëme hmm. ndekete loolu foofu la leen jëme hmm. mooy boo moomee sa bopp ci wàllu koom-koom hmm. ku yor nga yor sa bopp ku yoratul nga yor sa bopp léeg-léeg yor la day jafe wala nga gis ku la yor di jafe. waaw góor ñeent naan man du ma takk jigéen ju kiiwut. moom kay jigéen ju kii laay takk. mu xaw a yéeme loolu ci penc bi fi nekk nii. li ëpp ci ñi nga xam ne ñoo ngi yëngatu ci wàllu googu. léeg-léeg duñ leen yor. duñ leen yor mais sax ci ci ci ci doléance yi. Mm-hmm. si Mbàkke. Mm-hmm. doléance yi nga xamante ne bokk na ci fi ñu koy jooyee maanaam ñi nga xamante ne xam góor góor it mooy yilif. Mm-hmm. ku laale lu ñu jàmbaare jàmbaare tam am na fu ñuy joxañ baaraam. donc seen doléance est-ce que bokku ci ñu xoolaat na code de la famille. Euh, góor ñi tam ñu responsable gën leen a Euh, tekkiwul nag ni yow mi am diplôme doo dugg. waaye mhm. nañu gën leen responsabilité yokkal leen ñoom it ba ñu gën a mën a am yërmande ci jigéen ñi. Mhm. waaw xam nga kenn yoratu leen. jigéen ñi kenn takkatu leen. xam nga pencum laïcité mhm. moom daanaka du wax ni lii ba lii xaraam na. day bàyyi rek. day bàyyi mu jàll rek. lépp day bàyyi mu jàll. léegi daal moom nit ki boo xasee am asangam nangam ak nangam temps bii la am léegi dañ koy bàyyi mu jàll rek suñ doxee ba mu yàgg ñu gis ne li normal ñu ne nañ ko normaliser mm-hmm. waaye nañ koy normaliser léeg-léeg code de la famille bi nga xam ne moom lan am nun mm-hmm. léeg-léeg bu la ko joxee sax boo ko jëlee du nekk noonu mm-hmm. ndax dë dëppaliwuñ ko ci kaw sharia tëral ko ci noonu dañ koo xalaat rek muy code barab sàngam ñu indi ko dëpp nu ko ndax ñàkk xam sam réew mën naa tax nga tëralee leen yoo xam ne ñoom duñ ko xam toujours ma léebal leen fii léeb bu am solo mooy waa ja nekkoon ca Mbàkke dem ci miir ba di tóor ndox waaw waa ji ñëw fekk euh, police bu ñëw fekk fa ne ko waa yow da wér di mu ne ko déedéet dara jotuma de mhm. kon da ngaa mënti jàng mu ne ko ah kay ndax bàqara ba naa si jàng naa ko mu joxoñ ko mbindum tubaab muy wax ni fii dañuy tere ko fi saw ne ko jàngal lii mu daal ne saa faal faal am na oto <laughs> <laughs> ba ngaa jékki rek daa jeexti waaw saa faafaal am na loolu mooy la maanaam moom loolu parce que mbindum tubaab la hmm. police ba ndoo ko jàng ko mun ko saa faal hmm. mu jeex tàkk lu ko police ba wax lu mu koy wax xanaa di ko xool mu di ko xool rek mu xam ne moo ko raw fii raw fii ay donc loolu noonu lañ def jigéen hmm. ah, suñu code bi tam noonu la ñu bàyyi nag ne jigéen wutal loo am ku la yor nga yor sa bopp ku la yorutu nga yor sa bopp léegi nag bu demee ba foofu nag ba foofu jafe yor gi day daal di tàmbalee am li ne ci penc mi sëñ mbàkk ci aw jigéen te kenn yoru leen te ñu toll ci sëy léegi tey mu yokk dëgg la saar Lamine Sarr mëla ca euh, daara jële ca euh, lemin Sarr mëla ca euh, Pikine mhm. da Babu Salaam mhm. ci la bind daanaka ma ne ba muy génn jaxal am njàngam mhm. wane ne kon jigéen ñi li fi nekk fi nekk nii te am. Mm-hmm. aasu ah sëy te sëyunu. Mm-hmm. buñ la waxoon santas bi nga téye sa sikkim. loolu dañoo ñeewut ñu dugg ci sëy wala lu xew. waaw dañ leen dañ leen a defal formation ci wàllu ay discours. Mm-hmm. ci wàllu ay nangam ba mu jàgg ñoom ñu jàpp ne di sëy sax ak dellu ginnaaw la. waaw ndax jigéen ji wax ne ku ma yaakaar ba may la dox doo naan. Hmm? ah doy yaakaar ma lay xaar sa kër doo ko gis. ku yaakaar ma jural la ñeenti doom dem nga Saalum mm. waaw yooyu <laughs> bu mooy dox ci penc bi ah, ah, li ngay xool pour am ko du bokk li nga war a am mm-hmm. Mm-hmm. waaw sëñ Mbacke mi yàkk na nii mm. euh, oustaz est-ce loolu jurul dama maanaam ni ñu dem ba gëmloo jigéen ñi maanaam ñaq bett saw ñaq amal sa bopp am sa kër am sa oto bokk ci fi ñuy jëlee décision yi gëm googu nga xamante ne euh, daraja àdduna la ak koom-koomu àdduna la est-ce que taxul dem ba léegi ñu la yilif dootu ko bëgg juri doom doo dootu ko bëgg femme du foyer itam doo ko bëgg doon. ah xam naa bu ko doon tuuti xeeñ na ko de moom. Hmm. bu doon li nga wax nii. Hmm. mooy kon xeeñ na ko xeeñ na fa lool. ndax waa adduna léegi léeg-léeg da ngay dem ci barab yoo xam ne lañuy ñuy gëmloo góor. Hmm. mooy koy takk. bu may bu njëkk gi dee cinquante mille. Hmm. na joxe vingt cinq. kee joxe vingt cinq. waaw waaw. bi ci kër gi séddoo leen ko. ndox mi séddoo leen ko. ndox mi ñuy naan bu ngeen jënd génne di jënd ndox waalo. Hmm. boo jëndee juróomi biteel na joxe njëgu ñaar yaa genn wàll. Hmm. loolu nag bu ñuy dox foofu fañ jëm. bu ñu fa àggee ba mu ci dana métti jigéen loolu gën a métti li métti nii gën a métti a métti de parce que jigéen dafa faaw ko ko yilif naka jekk jigéen dañ ko war a yilif ci ndigal <laughs> moo tax ma bi may tàmbali ma ne sunu borom ne aadama uskun anta daan ne ko wa zawjuka aljanna torkal dugal waaw <laughs> am na solo oustaz bu ñu ñëwee ba ci 2019 waaw jigéen kon war a euh, laajaat ay àqam waaw war ko revendiquer euh, war a taxawaat xoolaat boppam waaw ah am na sensu jagleel nañ ko ab bis. waaw boo xamante ne nee nañ ko bis bi yow lañ ko jagleel. waaw tey boo doon laajal jigéen ñi seen àq loo leen di laajal. jërëjëf ci laaj bi. merci. bu ma leen doon laajal seeni àq damay daal di dellu ci alquran. walla hunna. mithlu lasi alayhinna bil maaruf. sunu borom def ni jigéen ñi li ñu am ci ay devoir. lu toll noonu lañu am ci ay droit. lépp loo xam ne devoir la ci ñoom droit yaa nga fa tool noonu kon moom ndekete ay droit am sa alin yàlla limité ko ci juróom yëf ak juróom benn yëf lépp lu muy def rek war nañ ko ko defal lépp lu muy def rek war nañ ko ko defal wala hunna mithlu lasi alayhin bil maaruf waaye sunu borom ci xereñam al azizul hakim ci njàngaleem mu tëjël laay ji wali rijaali alayhinna daraja hmm. mu ne kër kër hmm. day am benn sef de l'état benn njiit njiit loo xam ne bu wax amee hmm. moo war a mujje kàddu ga su amut buñ tàmbalee wax kenn du noppi lu tax yàlla def njiit loolu muy góor nag oustaz te léeg ne am góor ñoo xam ne ci kër gi jigéen a leen ëpp kàddu moo leen gën a muus bi ma faddalallaahu bihi baadum yàlla mu ne dama laa damaa mooñe góor lu tax mu mën a jiite rek la te defuma ko ci jigéen kon yàlla moo ñëwut jigéen mu mën a jiite góor la moo ñëw mu mën a jiite très bien sëñ Mbacke fekkoon tey ah. fase ci loxol jigéen la nekk kenn du sëy ñaariyaat ndax bu meree day fase laay laay kon kenn du sëy ñaari at man a oustaz loolu léeg-léeg damay jàpp ne jikkooy nit la ndax am na góor ñoo xam ne it noonu lañ ci gaawe am jigéen ñoo xam ne dëgër nañ dëgëraayu liñ mën a seere góor mënu koo waaw bu jigéen góor saa góor a mel noonu rek il yooyu waru koo mel. moom góor waaw. saa bu ko melee rek. Hmm. nel il est lu tax jigéen ñi duñu wax ne bu melee noonu il est moom it. non ba pare jox ko jox ko li mu yeyool. moom moom su boobaa. Hmm. da ngay dellu ca alayhi salaatu salaam moo doon jàngale. Hmm. ba leen góor. la wax waa leen góor. ñi dañu ci mat bëri nañu lool ba mun mu ko lim fii. waaye yéen day ñi ci mat bëriwut. daal ciy lim aw jigéen. am na lu ma donc loolu foofu lay dellu si sëñ Mbàkke mm. daaw daaw bi ñu egsi point bi. Mm. waaw am na lu am solo loo ci bi ba mu la laajee ni la euh, lu tax góor benn seede képp doy ci. waaw jigéen ñu indi ci ñaar. waaw nga may nettali nag waa ji ne nii dañu jiñaat dañu jiñaate woon sàcc. waaw juge bi nag nekk ko xarañ. wallaay indi daal di ñàpp moo moo léegi ki ki sàcc affaire bi sax de daanaka yow mën naa e, xam. E, elle rafet la mu njumbal gi dafa dafa joy daal dafa rafet parfum bi xeeñ euh, rousa bi nangam nangam. rek ndaw si na ko mën a. ndaw si daal di daal di mën la commissaire. <laughs> ndeysaan ndax bëgg yooyu ñu wax yëpp daje ci. yooyu ndax yooyu ñu wax yëpp bëgg ma daje ci rek tabaarkalla. <laughs> wax dëgg de dëgg de ah am na solo de oustaz en tout cas jigéen daal la ñu noonu kon. ak ah. yi nga xamante ne moo ci am ñu sonn lañ nag ci barab yi liggéeyukaay yi la. ñuy teel a xëy lañ. boo génnee man nag nag si <coughs> yàlla xam na ni <coughs> euh, intérieurement man maa ngi leen di. maa ngi leen di nangu. maa ngi leen di nangu si. tubarkalla. Euh, intérieurement am na ay ci ginnaaw. comprendre ma woon. Hmm. mais actuellement maa ngi leen di nangu. Hmm. nangu c'est-à-dire. Euh, maanaam sama xol gi leen di accepté. <laughs> ci doxalin waa si si parce que booy xool doxalin ni réew mii di doxee. Hmm. ak kër yu bare bare bare. bari na góor ñuñ man bu ñu seen morom. ay yaasin boobu lañu. waaw jigéen jigéen du daw njaboot. nee nañ yaasin boobu jigéen du gàddaay jigéen ñëpp mën nañoo. mën nañoo déserté comme góor. dem añi feneen wala reer ji feneen wala dem feneen bu mu des jigéen. ndeysaan moom bu doon sombi sax da koy bokk ak njaboot. dëgg la di dëgg la bari na ñu daw kay bàyyi jigéen ñaa njaboot gi te ñoom ña nga cay. dara walaay ndeysaan. bu leen toxal seen ak déglu bari na jëm duñ fa yàgg. xaju oustaz Alioune kon euh, li ci tege rek mooy euh, neuf heures jot na ba teg juróom fukki simili ak juróom benn hmm. aca waaw kay jërëjëf oustaz jaajëfal mbokk yi sëñ Mbàkke ka daane kon ñaar wala ñetti simili hmm. yi des ñu jekkale ko euh, te dóor puus dóoroo kii wala hmm. waaw xanaa noonu ay ah. ca fu ñu yemoon ay oustaz yaa ngi doon am solo waaw muy ci am na benn mbokk rek sa mbokkum daara bu mag bu yoon daara fële ca kawoon nee na day ànd yow ci li nga wax ni jigéen rek moo mën a yor benn morceau jën waaw ba xalal ko jëkkëram waaw jëkkëram lekk ba suur moom mu fas yéene fanaan ba bër seen wallaay ndeysaan mu ne suñu yaay dañ daan togg mu neex xóoñi rek lañ daan lekk dëgg la muy Cheikh Tidiane si moom kay léeg-léeg léeg-léeg hmm. ñun xam nañ ci dara hmm. jékki nga am ay gan waaw ñii jigéen ñi ñoom ñëpp ndeysaan ñu yàllee ko ndànk dem toog fële ndeysaan suñu añee bu desee nu añ hmm. brisit ñu xam nañ def jënd biskit moom jigéen dana koy def est-ce waaw tabarkàlla. ñu ngi leen di ndokkeel kon ci bis bi. <laughs> ndokkeel seen bis bi waaw waaye nag oustaz ni ñu daan yore doom ak di ko toppatoo it mel ne àq yi ñu xeex mi ngi leen koy xañ. jigéen ñu bari ña nga bàyyi seen i doom ci kër ga. duñ leen nàmpal ndax liggéey bi. waaw ak yeneen yu yeneen inconvénients yu. baree mm-hmm. bari yoo xam ne liggéeyub jigéen euh, am na ko ci biir sëy bi. waaw football bi. Mm. suñ gëmloo góol. Mm. ne ko ku dugal bii nangam nga am góol bàyyi fa kaam di dugal yi dugal ci kaam day yomb. dañ koy loobe. Mm. jigéen loolu la maanaam li muy wuti dafa xamul ne am na ko wala su amee doom doom ji indi ko bu ko ci boppam doyee rek mu tàmbalee bàyyi kër gi bu ko ci boppam doyee mu tàmbalee wut lu muy denc waaye li fekk nit ñaa ngi ko ciy doy càmmiña ma ngi ko ciy doy jëkkër ma ngi ciy doy doom ma ngi ko ciy doy loolu bu toogee itam loolu fekk si ko jóg nag di ko wuti léeg-léeg da ngay wut da ngay moom. waaw euh, kon ci côté miraas mi. waaw góor ñaar jigéen benn. Mhm. est-ce que comme jigéen léegi mooy dawal boppam lépp lépp lépp fa mu la war a féete mën na ko féete sa jëkkër fa mu la féete mën na mhm. a féete mën na ko féete boo boo liggéeyewul dootu ñu la fay mhm. ndax euh, congé maternel bi daanaka boo toogee léegi walaw ittaba al xaqu ahwaahum jeex na suñu borom nee bu ma doxaloon démocratie ci li may tëral. ji hmm. mépp yàqu. Hmm. su ma demee ba mu yàgg ñu naa comme jigéen a ngi def nangam kon nañ wëlbatee ñu def nangam. kon alxuraan daal yàqu kon kon moom du maanaam du soppe ay luwaam ni mu ko tëralee woon rek. la koy bàyyi ni mu ko tëralee woon rek la koy tëralee ba mu bàyyi ko wëlbati koo ko dëpp. waaw comme comme luwaa yi nag daa koo ko dëpp kay war di ko adopté hmm. am na ci yom yoo xam ne suñ <laughs> ko xamul rek la ñuy defee ne dafa dëpp dafa dëppwut ak ñun hmm. waaye lépp dëpp ak ñun hmm. alxuraan lépp dëppoo ak ñun ci wàllu misaal tey conseil yi nga xam moom la ñuy jox jigéen balaa am doom mhm. ginnaaw bi mu amee doom mu war a wéyal conseil bi ab diir mhm. daal di reprendre ab liggéeyam mhm. Euh, ci election yi sax dégg naa candidat bu ko yokkoon boo xam ne conseil bi mën naa gën a mën naa gën a gudd mm-hmm. Mm-hmm. ba six ak lu ci mën de am oustaz conseil boobu bu jeexee mm-hmm. da ngay yëg ne xale bi tollagut fi mu war a taxalikoog ndeyam ci li euh, société bi jàngale woon ak li lislaam woon ak li wàllu ak li war a am ci wàllu yar te du dañ koy obligé mu tàqali ko moom ndax ndey ji dafa war a liggéey waaw léegi day bàyyi liggéey bi nàmpal wala day bàyyi nàmpal bi liggéey gis nga code de la famille foofu ci wàllu tiñ ji waaw ci wàllu conseil boobu nga wax maternel waaw daf leen ci bàyyiwul xel daf leen ci lor de. waaw parce que. bu toogoon ñeenti weer. yoo xam ne fi ne dafa yor uuf doomam jooju. ci lay gën ci mu toog quarante jours wala un mois. waaye barabu liggéeyukaay bi it bu boobaa. baadu baadu tàyyeel ci jël jigéen juy sëy nga xam ne jëlu góor da koy gënal jël jigéen ndax conseil yooyu fi nekk nii kay mi ngi ci fi nekk kay barab yu bëree ngi ci nii barab yu bëree bokkoon na ci li ma bëggoon aussi hmm. non non non bokkoon na ci li ma soxla woon jigéen seen doléance yi hmm. conseil boobu ñu gën ko waxtaane hmm. ndax nit ñi ci wax dëgg yàlla sonn nañ toll ndax jigéen dafa amul bànneex bu dàq uuf doomam di ko nàmp. wallaahi ndeysaan waaye bu la nee à partir de trois mois. ak itam ci gone jigéen ñi nga xam ne ku ci muur sa mm-hmm. la euh, moom kay Oustaz si ngay jeexale dégg naa président euh, Macky Sall. di ci joxe misaal ci soxnaam Marème Faye. Mm-hmm. nee na dafa ne ca barabu liggéeyukaay ba di liggéey te nàmpalu doomam. nee na ñu lewu doom ji indil ko ko nee na moom sax moo ñëw fekk xale bi di jooy mu téye ko ba sonn ndax mënu ci dara mu yóbbu ko fa muy liggéey. waaw nee na mu génn nàmpal ko waaye keroog la démissionné ca liggéey ba ne day toog ci kër gi di nàmpal ay <laughs> no comment sëñ Mbacké bu leen toxal si nag déglu bu leen tëkkalee xibaar yi rek daal di sotti ci jotaay bi monsieur le président no comment tubarkalla jëf ci ànd beeg Sud FM seen xaju di sër ma jot ba teg ñeenti simili tënkum xibaar yi tabaarakallahu noo ko lépp ba ca beneen yoon incha allah dabli ñu ci 88 628 98 98 waaye te ngeen bàyyi waa bitim bi nga xam ne mooy 823 tabarkalla Oustaz Alioune kon ku bëgg a jokkoo ak ñun def. jaar rek ci buum gi mooy 88 628 98 98. ñu nekk bitim réew. ñoom ñooy jaay 33 841 22 33 suñu Mbàkke. ñu dem kon. kii nee na action dafa bëgg jokkook jokkoo ak ne ko. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay jox cër. di leen ci ajjuma ji. jërëjëf Diallo. di ziar ak sa cousin. Mm, sama cousin yi nii toog <laughs> te di leen wax ni gënu nañu kontaan. jërë ngeen jëf. tey moom oustaz gënu si nañu soññ. pour ñu mm-hmm. ñuy doxaleeg soxna yi ci kër yi. Mm-hmm, mm-hmm, ñu ko ciy bu baax a baax. est-ce que est-ce que leen ñaanal ñaanal leen daan ñaanal rek. yàlla defal leen sutura kaaraange. ak xaalis bu bëree bëri. Mm-hmm. daal moom cinquante deux milliards nag war na jot nag. Mm-hmm. ñu ñëw amiin amiin. di <laughs> ngeen ñaanalaale sponsor yi. Mm-hmm. yàlla yokk seen chiffre d'affaires bu baax a baax. amiin amiin amiin. jottali nuyoo waa Mbaxana ak waa Sànna rek mbëri góor góor yëpp. tey nag benn laaj rek la indi woon ci alxuraan. laay bu mujj si suuratu Muzammil. waaw jërëjëf. jërëjëf. Euh, kay jërëjëf mbokk mi Mbacke. 88 628 98 98 33 851 22 33. ñu ngi kooku Mbacke. aywa ñu dalal ko asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatulah wa barakaatu. ah Adja Ndeye Camara. ah man la Talibe Cheikh. waaw kay Talibe Cheikh na def. ñu ngi waaw kay jërëjëf. Talibe euh, ñu ngi leen di nuyu di leen ziar. alhamdulilah. di ndokkeel jigéen ñëpp. Mhm. dama doon ñaan ustaas rek mu jox ñu benn cadeau waxtaan bu ndaw rek ci jigéen ñi leen di xaar ëllëg euh, aljana mhm. comme tey mooy suñu journée. d'accord lu mu indi lu mu indi rek baax na. ci aljana <laughs> waaw. <laughs> yi xaar jigéen ci aljana. d'accord d'accord. waaw jërëjëf jërëjëf sa bi Seex ñoo la lay jaajëfal baax te rafet lu duggam bu am solo boobu Imaam Ali. waaw waaw ndeysaan di ko baax yow. jërëjëf boobu. ah waaleykum salaam wa rahmatulah. bisimilah. Sadio Xaas Mbaye Mbacke Bawol. ok sëñ Xaas Mbaye. borom 91 point 2. jërëjëf jërëjëf Mbaye. Oustaz maa ngi leen di jërëjëf ñu ngi lay fay baax a baax. ah di ndokkeel euh, sunu waajur wu jigéen ak jërëjëf man na ko koy. ak soxna yu baax yépp rek. jërëjëf jërëjëf. te dama laaj bi may indi mooy damay laaj ndax comme bu ma amee sama xarit. maanaam bokkuñu religion maanaam mu nekk chrétien mu nekk musulman kon ni ñuy woore ni hmm. ndax mu laaj ma ndogu ndax su na ko joxee naa ci am lu ma ci lislaam jox daal mu ne jox ma ndogu tay jox ma ndogu d'accord may laaj ba xam lu ci lislaam wax jërëjëf waaw maa ngi leen caale ñëpp leen ñaanal nag alhamdulilah tubarkalla ñaanal soxna si njiitu réew mi baax di ko ndokkeel moom ak soxna ma alaaji Omar jërëjëf xas mbay ñu ngi koy nuyu ba walla di bëgg ci dugam bu am solo boobu. ayca imaam li waaw def leen ni moom rek ci 88 628 98 98 toutes les femmes sont derrière asalaamaaleykum. asalaamaaleykum wa si na fa woote. maa ngi leen di nuyu Oustaz di nuyu Oustaz Mbacke. Mhm, ñu ngi lay fay. Mhm. Euh, euh, mardi gras. Mhm. ndax doomu jullit war na bàyyi doomam muy nekk di déguisé di dem ci école yi surtout ci petite enfance bi xale yoo xam ne ay innocent lañ xamaguñu dara ñu di leen di initier noonu di leen bàyyi mel ni loolu daal lu war la mm-hmm. dama doon laaj daal ndax loolu lu ko diine gisee d'accord maa ngi leen di gërëm di sant jërëjëf jërëjëf yow itam ñoo ngi lay sant soxna si te di ko gërëm 10 heures jot na ba teg juróom-ñetti simili imaam li mbokk mi daa bëgg a bokk. asalaamaaleykum. maaleykum salaam. sëñ bi na nga tudd woote. waaw maa ngi tudd Bul Découragé maa ngi wootee fii Sips. Bul Découragé. Mhm. waaw. ma doon laaj ne sa waajur boo nekkee moom di ko daanal di ko liggéeyal. Hmm. léegi yow. yàlla def juddu woo ci sëy hmm. léegi yow sa digganteeg moom est-ce yoon la yow tey ji nga bàyyi wala nga continuer di ko liggéeyal ba tey. Hmm. waaw loolu moo doon sama tontu. d'accord jërëjëf jërëjëf sëriñ bi ñu ngi koy jaajëfal baax a baax te di ko ndokkeel dugg na laaj bi leer na imaam li dafa mel ni keneen a ngi ñëw. waaw nuyu ko. waaw asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. oustaz ñu ngi leen di ziyaare bu baax. jërëjëf jërëjëf di leen jaajëfal di leen sant. alhamdulilah. tey ci suba si da ngeen jël benn um, thème bu am solo. Mhm. mooy jigéen buy liggéey ci këram. waaw mu war a taxawoo oustaz dama bëggoon laaj oustaz Alioune Sall. Mhm. ndax est-ce que nekkul ne parents yi way jur ñoom ñoo xaw a bàyyi seen base. Mhm. muy diine bi ñu yàlla tegal. muy alxuraan ak sunna parce que bu mm. fekkee ne nit ki dañ la yar ci diine mm. nga am base mm. boo demee sa kër ak loo fa sëyi ak loo fa mënta am sa borom kër ak lu mu mën a ñàkk di nga xam ne sëy moom moo la fa war ak grade boo mën a am ci liggéeyukaay ba wala moyen boo mën a am aussi mais bu fekkee ne waajur yi dañoo ñëw bàyyi ñu ak nasaraan si ne ñu nañ ñu jàngal ñun nasaraan si li ñuy jàngal loolu rek la ñuy tari ci biir kër yi. Mhm. mais ci côté sëy yi waajur yi tamit dafa mel ne dañoo teel a démissionné torop torop mhm. torop. Mhm. déjà alxuraan yi bu ñu nekkee xale du ñu ko jàngal dañuy yóbbu ca euh, jardin yëpp. ñu màgg ci donc euh, jëfinu tubaab bi rek moom la ñuy xam. mais bu fekkee ne tey tamit am nañu éducation de base muy suñu religion boo xam ne wan nañu ne. jigéen dafa am taxawaay bu mu war a taxawee ci këram. ci sëyukaayam mm-hmm. am loo xam ne war na ko fa am loo xam ne waru ko fa mm-hmm. defe nee na kon ak loo mën nga am aussi cër boobu di ko sëye mais bu fekkee ne dañoo bàyyee ak tubaab bi ñu éduqué mm-hmm. loolu moo xaw a nekk problème bi beneen problème bi aussi góor ñi dafa am ñoo xam ne dafa mel ne dañoo am complexe sa soxna bu xawee am tuuti muy def ngay def dangay am complexe wax ko ne ko yemal fii lii laa bëgg lii bëgguma ko ak tere ko yenn yi dafa mel ne complexe boobu góor ñu bëri dañ ko am mhm. te loolu aussi waru leen mhm. parce que nit ñi buñ la ko joxee pour nga mottali yaram pour nga wan ko ak garaat bu mu mën a am aussi yow war nga mën a imposer wu sa kër ba wan ko ne ko mhm. garaat boobu du loolu moom moo du loolu moo la fi andi bon olof yi moo leeru bu baax xaw ma nu ma koy waxee am na solo voilà loolu daal laa bëggoon oustaz ñu xaw ci laal tuuti. Mhm. jërë ngeen jëf yal na yàlla fay leen. amiin amiin soxna si ñu ngi koy jaajëfal moom it daal aw turam tey bis bi yéen ko moom ñu xaaraat yeneen jigéen wala kenn ci càmmiñ yi oustaz Mbaye dalal ko. salaamaaleykum. waaw maaleykum salaam wa rahmatullah. Euh, yaaram waaw ko Naar Ndiaye. El Hadj Naar Ndiaye Paris. waaw ñu ngi lay jaaree oustaz. Ndiaye Ndiaye Ndiaye na nga def Ndiaye ana ñoom Dora. waaw ñëpp a ngi ci jàmm ñu ngi sant yàlla bu baax jërëjëf Ndiaye jërëjëf ñu ziare suñu Mbàkke ak sëñ Oustaz Alioune Sall jërëjëf jërëjëf yal na yàlla nangu siyaar di rafetlu waxtaan wi di ziare suñu soxna si suñu suñu suñu soxna suñu mag si ziare soxna yëpp ñu leen di ziare di leen ndokkeel ci bis bi jërëjëf jërëjëf naar bismillah bismillah naar waaw waaw sëñ Mbàkke mooy dafa am lu ma bëggoon Oustaz baaxee ma ci waaw mooy bu ñuy jullee ku wàññeeku waaw lu ñuy war a wax foofu ak ku ñëw fekk. Euh, jullee néew jullee yooyu nan nga nan nga war a def. d'accord. <laughs> waaw jërëjëf tey maa ngi laaj oustaz tamit bu baax ma ma ne ko dama doon dama ko doon laaj kañ leen invité ndox yi ndox yi ci plateau bi. <laughs> waaw baax na jërëjëf maa ngi leen a di ñëpp jàmm ak wér xéwal ci piraat jërëjëf jërëjëf Naar Ndiaye ñu koy nuyu. jërëjëf sëñ Mbacke jërëjëf ñëpp ñoo ngi nuyu soppe euh, Sud FM seen rajo yi nekk diaspora ak soppe si FM seen rajo yi ne ci biir réew mi yéen ñëpp ñoo ngi leen di nuyu teg loxo bi ci loxo nuyoo bi ci loxol Alaaji Pam Njóogu Sàll imaam li jëlal ko asalaamaaleykum allo. génn na waaw comme ni waaye rek di di Sud Diaspora ñoom Omar Ndiaye ñoom Ndeye Camara ñoom. Euh, Babacar Babacar Diaw. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. Alaaji Seexuna Silla. waaw ndongali ndongali Cheikhouna Sylla. Cheikhouna na nga def. ñu ngi sant yàlla suñu borom bu baax. Sylla Maxtaar. waaw suñu mbàkk ñu ngi lay ziar. jërëjëf Sylla. di ziar al imam Oustaz Alioune incha allah. Mm, jërëjëf jërëjëf. di rafetlu bi ni muy doxee. Ah, ok waaw amati na solo dañuy wax. jërëjëf. di indi nuyoo ba Kolban yëpp. ñu ngi leen di ziar di leen bàyyi xel bu baax. ñu ngi leen di fay baax baax. alhamdulilah indi woon ñaari laaj. Mm. benn bi ko ñu wax sëñ Mamadou Ngom moo ko laaj. mu ne lan dafa bëgg Oustaz ñëwal ko ci ndax gerte danañ ko génne asaka. gerte waaw. Ah. beneen bi maa ko laaj suuratul Baqara. aaya hmm. 253. Hmm. xam naa du sori tilka rasulu faddalna. tilka rasulu waaw. Hmm. baxdahum ala baxdin minhum man karama allahu wa rafaha baxdahum darajatin wa aatina isa bna maryam bayina mhm. wa aydnah bihi xudus walaw saa allahu maqtatala allazina min baxdihim min baxdi ma jaahum albayina ila axiri aaya loolu de mooy aaya 253 waaw kay mu ngoog dama bëgg paas dikkal ma ci di di leen jaajëfalaat bu baax di ñaan suñu borom defal leen tawfeex ak taysiir jërë ngeen jëf. jërëjëf jërëjëf Cheikhouna Sylla sunu xarit boobu nekk ci Colobane di nuyu waa Colobane gépp macha allah. Mhm. nuyu kooku. asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. ñu ngi leen nuyu bu baax a baax man la Ibrahima Ka. waaw kay Ka. dëkk fii ci Yoff. Ka naka waa Yoff. sant yàlla ñu sant yàlla bu baax mhm. di leen déggee di leen remercier bu baax a baax. jërëjëf Cheikh Ibrahim. di rafetlu liggéey bi ngeen def. jërëjëf. ça nous a permis de comprendre beaucoup de choses suñu religion ak suñu nekkin. alhamdulilah. loolu baax na. tubarkalla tubarkalla. da mën na man dama am benn contribution bu ndaw ak benn laaj. bisimilah bisimilah. contribution moo de damaa jàppoon ne. Hmm. ñoom dañu def huit mars ab fête rek. Hmm. fête nag en général boo ko def day mel yow da ngaa nekk ci bànn nekk ci lépp. Hmm. waaw lépp nag moom jagut lu bari jàng na waaye am na lu des. dama jàppoon ne bu ñu jàppoon ci depuis mille neuf cent soixante-dix ba léegi. ñu jàpp ministère yi fi ñu occupé ministre de la femme yëpp yëpp ñu dajale leen. ñoom ñu defal leen la même rencontre. ku ne bi nga nekkee ministère am na lu def. am na lu bëggoon def ñu jëlee la fi jël defoo ko. keneen noonu keneen noonu keneen noonu keneen noonu ku ko te te fii kenn ko. ñu def ko benn ko def ko benn mémorandum. ne ko nag ñun fête bi li mooy suñu participation ci fête bi. bu ko defee ñu orienté décideurs bu boobaa ñu mën nañu ko yaatal si ñu ñu nekk Caucus des femmes ñu nekk association islamique surtout. Mhm. lu am solo la bu fekkee ne droit bi dëpput ak islam ñu ne ah d' accord lii baax na nag waaye nii la ko islam gisee. Mhm. bu ñu leen dajalee ñoom ñëpp gis nga point de vue divergent yooyu bu ñu ko defee tëggatoo ko benn mémorandum. am na solo am na solo ñu teg ko ministère de la femme bu ñëw am nga livre de chevet. am na solo tableau de bord. am na solo mhm. loolu mooy contribution bi. waaw beneen bi moo di. Hmm. question bi. dama bëgg ngeen ngeen attirer attention ci femme yi en général jigéen li Moustapha gi dafa naan dara bu ñu am dañu fekk ñu day leen def wala ñu sant ko yàlla ñu ci ñu ci bari ñaan yi dañ dafa salaire plus difficile dañ xaw a naqaree yor en général bu ñu amee wërsëg dañu foog daal bu wërsëg wëyate wërsëg ñi nga waroon a nungoo dootoo ko nungoo. d'accord loolu loo loolu tam ci la xam naa ne ci ci amut moom di xaar daal ci gën a nungu. Mhm. mooy gën a wàccu ay wareefam. dëgg la li nga xam ne dafa yor. dégg mhm. <laughs> wax nga dëgg de jërëjëf. am na solo. am na solo euh, alaaji Ibrahima Ka yoof la doon wootee Imam mhm. fukki minute juróom-benn tegu na ci fukki waxtu jëlal ko. asalaamaaleykum. yaaram. naka ngi sant alhamdulilah. saa bi daa mel portable am tiit tiit. waaw waaw. Oh, sotti de. <laughs> laa ilaa ñu xaaraat ko mu defal. waaw ñu xaar ko xëy na du ñàkk mu jubbantuwaat ko incha dese na ko 13 minutes incha allah mbàkki nuyu kii. asalaamaaleykum. maaleykum salaam. bisimilah soxna si. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. jàmm rek. jërëjëf yal na yàlla nangu siyaar. tey nag dañu waroon góor yi dañu waroon bàyyi antenne bi comme ça ñu tamit ñu mën a wax suñu ay doole. waaw oui loolu la ñu waroon def. mais ñoom da ngay waaru ko mais ñuy bousculé woon ah, ci antenne bi. maa ngi ziar sama oustaz yu baax yooyu di ziar oustaz Alioune Sall di leen ñaanal di leen ñaan aussi ngeen ñaanal ñu ci mars bi mhm. jigéen ñëpp rawatina euh, suggestion rek. Mhm. te ni ngeen defoon serveur nga xam ne au moins di nga mën a ci suuf li wax yëpp dara du la ci rëcc. Mhm. ñun ñi nga xam dañu nekk xëy na suñu liggéeyukaay di dégluwaale. donc boo xasee bay oote sa portable rek dootoo ci li xew ci suuf. alors que ah, émission bi ñun dañu bëgg dara dañu ci raw. danga nga daan nekk en ligne di déggaale. émission bi ñuy woote ah yëpp yëpp yëpp. loolu aussi bu ngeen ñu ko mënee laajal borom kër gi. d'accord incha allah léegi man daal li may ñaan oustaz rek mu soññaat jigéen ñi bu baax a baax a baax comme ni ko sama benn nawle bi tugg sànq waxee rek. titre mm. boo am ax ah, loo mën di am rek xamal ne jigéen nga. Mm-hmm. te comme ni ñuy wax rek jigéen moom dafa war a nekk ku soumise xaw ma nuñ ko ci waxee mais da nga war nekk bu oyof daal mhm. nekk euh, topp ci sa borom kër ak nu mu mën di mel ak ceer bi même boo ko ëppalee jeex sax ci kaw mhm. euh, ci kaw suuf nii mën nga ko mën nga ko continuer aussi di ko jaar mhm. loolu daal la doon ñaan ak aussi mu gën ñu ñaaxal di ñu gën ñaanal congé de maternité yi ngeen doon wax noonu. parce que ñetti weer moom wax dëgg yàlla am doyul daal. ñu hmm. mën a waxal tamit ak mu dolli ñu ko. Hmm. jërëjëf maa ngi sant ñëpp. jërëjëf merci Nogaye numéro 2. 3. <laughs> numéro 3. <laughs> defe naa daa amoon 2 ba noppi. daa amoon am na ku ci biir asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. yaa ngi sant Mbacke. waaw Fadila docteur. waaw ñu ngi leen di ziyaara suñu aawa mhm. ba xullan yusibana illa ma katabalaahu lana ndeysaan wa mawlana walalaahi fal yatawakkalil muminoon jërëjëf Gajaga di leen ziyaar di ziyaar oustaz di ziyaar uh, oustaz Alioune Mbaye jërëjëf jërëjëf waaw di leen di leen ñaanal gudd fan ak xéewal yu bëree bëri amiin yàlla ñu ci journée la femme bi ñu ngi sargaal ñi ngeen mhm. bàyyi ci kër ci kër ga wallaay mhm. ndeysaan ba bis bu nekk ngeen ñuy bëggal kenn mosula yëg seen yaram ke ni teg nañ leen fitna ba émission bi changé ndeysaan kon ñu ñu ga mooy ñett ak Mbackeeg. Aliou baax na leen di sargaal. dëgg la ndeysaan di sargaal bépp jigéen ci réew mi. ndeysaan ñoom di eh, jàmbaar lañ amoon yóbbante boo xam ni. Oustaz Mbaye mii ku xëy jox ko ndékki ñetti fan. ak mm. soxna Safiato ak waa Malika ak yëpp. Mm. di ziar nag sama mbokki ndoob yi di ziar alxalifa ak soxna Awa Gajaga mm. mu sëñ Modou Moussa Dieng invitation bi ñu defaloon ñu seeti maam ya ñu ngi leen di ñaanal ñoom ñëpp yal na yàlla sàmm leen képp ku bàyyee ko ci maam Bakar di waa ndoob Gajaga ñu ngi leen di nuyu di leen ziar amoon ñaari laaj nag benn bi. Mhm. dafa jëm ci sóoratu nuur bu ñu ustaas ma ne tënkal ci lu gàtt rek ban njariñ la ci jigéen ñi mën a amee. Mhm. beneen bi laaj bu ñu ma yóbbante la nee na kii dafay julli tisbaar. Mhm. rakk bu njëkk bi mu jàng faatiya ak saar. rakk bi ci topp nag mu jàng faatiya sëgg. bi mu sëggee ba ba toog nag la fa baytaaya la fàttali ko ni jàngul faatiya bi. muy laaj ba xam ñaari rakk yi ci topp day indi benn bi faatiya ak saar. Mm-hmm. am day bàyyi noonu ba julli gi jeex mu jàppe ko wàññi su jot xabla salaam mm-hmm. donc loolu loolu daal moo doon laaj ñu ngi leen di sant di leen gërëm di wax Oustaz Alioune Mbaye nag maa ngi lay déglu dégguma la mu ngoog di nga ma dégg maa ngi ci yoon wi inna laa waada jërëjëf docteur wax nga dëgg docteur maa ngi leen nuyu baax di nuyu Christine sama jigéen boobu nekk foofu ca pharmacie ba nuyul ki maa ngi koy nuyu asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatu. Mm. Soxna Mbacke. waaw. xalilullah. léegi léegi jaar baax a baax a baax. Mm. yow Oustaz Oustaz Aliou Sall ak Oustaz euh, Aliou Mbaye. jërëjëf kan. waaw démb macha allah démb moom sa albidaaya bi am na solo trop ak ak question yu nga doon posé. Mm. Oustaz macha allah. macha allah jërëjëf. waaw démb moom kontaan nañ ci trop. tey tamit macha allah seen seen seen émission bi amati na solo. alhamdulilah jërëjëf. waaw maa ngi profité tamit di di nuyu sama yaay ak sama sama soxna. Mm-hmm. ak sunu sëriñ. sunu maam Seydou Amary Amina yal na ko yàlla. amiin amiin ñu gudd fan ak wér gu yaram la moom it. ah waaw kay moom macha allah. Seydou Amary mais mais Khalil. <laughs> naam euh, euh, question yi ma jotagum dajale fii yëpp déggaguma ku wax bi jigéen ñi ñu takk ñaareel wala takk ñetteel question yu gën wax ko. xaju fi dafa xat daal am na yeneen priorité sax daa mel ne ah. xaaral xaaral ma may la loxo nga génn xaaral ma may la loxo rek foofu dafa xat foofu dafa xat jàllal jàllal ci lii la tax a jóg waaw jàllal ci lii la tax a jóg bu la kenn jàddloo. waaw tey benn benn waaw. suratul ahzab aya 35 innal wal muslimaati ba ilal axiril al ahzab aya. ah yow numéro 35. numéro 35. innal muslimina wal muslimaati mu'minina wa mu'minaati wal qaanitina wal qaanitaati wa ilal aaxiril aaya. yow daal waxal sa farata te dem rek jërëjëf. <laughs> waaw di di nuyu sama nijaay Ibrahima Diop ak sama mag Joma Samba Fall. nii ngay def waaw ci defam diaspora bi yëpp. asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah da ngay way dégg nga rek. <laughs> mag aw gaa nga war a doon. ya déet toggut bu bu bu waxut farataam nga dugal ko ci lu mu dul mën a lijjanti. <laughs> waaw bisimilah salaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw kay soxna si. waaw maa ngi leen di nuyu. jërëjëf bokkal la Sud FM. waaw seen rajo. maa ngi leen di nuyu. jërëjëf ñu ngi laa fay. di rafetlu seen émission bi. Mm-hmm. woon numéro Oustaz Alioune Sall. Mm-hmm. Oustaz Alioune Sall numéro am laa soxla woon. baax na léegi bu émission bi jeexee rek nga woote ci 33. 825 18 30. 825. waaw 18 30. bu bi jeexee waaw bu émission bi jeexee boo déggee onze heures quarante cinq minutes rek boo ci wootee ko jot boo ko mu jox la ko. waaw baax na jërëjëf. aywa jërëjëf dëggal lewte <laughs> ayca. <laughs> jërëjëf 88 628 98 98 33 841 22 33. Adja ñi mag Camara mu nga fële ci HLM Grand Médine ak Soxna Anta Bob ak monsieur Ndiaye suma dëkkandoo yu baax yooyu ñu ngi leen di nuyu. ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare 10 jot na ba teg ñaar fukki simili ak ñett. ñu wéy di leen taaxeelu madame Diallo ndeysaan gën naa ko dégg. madame ah, ba nga takkee ba léegi daal. ndeysaan sa waratul daal ndeysaan pourtant association bi nag euh, ñoom maa ngi leen doon wutal ku leen kii ku leen jéem a ku leen ku leen remplace waaw wala ñu tas ko rek dañ ko war a tas nag Mbacke hmm, dañ ko tas waaye waa waaye président d'honneur bi moom waaw salaamaaleykum kooku moom bisimilah man mi na nga def waay jërëjëf yaaram na def Saliou Diouf Darou Mbale Saliou Diouf Diouf ah. hmm, hmm. Diouf waaw ah. Ah, li nga xam maanaam maanaam wàllu soxna boo ko yoree. li hmm. mooy doon sa digganteeg moom. Hmm. lii la hmm. ndax na moom bu yoree alal bu bëri. waaw poobar lay jaay. bu yoree alal bu bëri te maanaam yow lu mu bëri bëri. noo ko war a joxe ak moom. d'accord ko war a war a yor wala moom daa war a jël alalam. jërëjëf jërëjëf Saliou jërëjëf <laughs> jërëjëf macha allah Saliou commerçant la wallaay waaye dañoo bëgg dañoo bëgg émission bi bëgg diine day waaye bi lay yàlla xam na naan sam deux cent bëgg bëgg a joxe bu laaj bilaay ndeysaan Saliou yàlla nga jaral amiin yaa rabbi <laughs> jërë sama yoro sama yoro sëre kon daal bañ fàtt waaw ba ngay jaay poobar euh, euh, asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah bisimilah bisimilah sëriñ maa ngi lay yàlla na yàlla nangu siyaar baaw kan jaay Baye Fall Baye na nga def maa ngi sant baax maa la lay nuyu di nuyu Oustaz di nuyu Oustaz Alioune mm-hmm, jigéen ñëpp di leen sargal seen bis bi di leen ñaan yàlla nañu ko yàgg a teewee barke yonent bi. wa sallam. waaw di nuyu xanaa bëgg Oustaz ñëwal ma ci sóoratu Tiin. Mm-hmm. waaw moom laa bëgg mu ñëwal ma ci. d'accord ak tam mu reer la ma lan moo waral su ma toppee si ginnaaw imaam su ko jàngee ba daaneel ma ne ko bal leer. faldeex mm-hmm. boobu laa bëggoon bu ñu leeralal ma ko. Mm-hmm. Mm-hmm. ok incha allah jërëjëf. jërëjëf Ndiaye. Babacar ñu ngi koy nuyu Ndiaye jërëjëf dese nañ juróomi minute man geen ñoo dab ba tey ci jotaay bi ci 88 628 98 98. asalaamaaleykum. waaleykum salaam al oustaz. waaw bisimilah bisimilah. yaar naa leen di leen ñaanal wér ak gudd fan. jërëjëf yal nañu ko yàlla boole. ndax yéen a ngi jàppale bu baax ci suñu diine. macha allah. man dama doon laaj. Euh, li yàlla farataal ci jullit ñi. Hmm. te Sénégal dafa bëri jullit ñoo xam ne lépp lu ñu wax rek ñu ne mais. dañ naan yàlla farataal nañ ci ñun lenn ñu nangu ko pare mais mais mais dafee bari quoi. Hmm. ba si liggéeyu jigéen ñi ba si jigéen ñi ñu war a yore seen njaboot. Hmm. lépp dañ naan mais. mais boobu laa xamul lan moo tax. d'accord laa bëgg daal. waxu ko waxu ko de nangu ko wax de. lépp bi <laughs> Mor Khoudia. Mor Khoudia waaw Mor Khoudia. <laughs> Mor jërëjëf Khoudia <laughs> ñu ngi di nuyu sama doom jëree soxna jëlal ko. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. yaaram na nga doon fa woote. maa ngi tudd Modou Guèye di woote jàmm gan. Modou Guèye. Modou Guèye waaw ñu leen ziar baax. jërëjëf Modou Guèye. Euh, da benn aaya bu ma doon laaj suratul Hadid aaya dix neuf hmm. ba vingt. Hmm. waaw incha allah. surtout xadit aaya 19. aaya 19 ba 20. Euh, ba 20 d' ok ñu ngi leen di ñaanal nag yàlla yàggal leen fi ci barke Seydina Muhammad. amiin amiin yaa rabbal aalamiin Mor jërëjëf Guèye Ndiora dem na waaye laajam bi ñëw na imaam li ñu jaajëfal ko xaar keneen. waxam 88 628 egsi na salaamaaleykum. salaamaaleykum. waaleykum salaam. Euh, Ramatulaay Njaay laa tudd. waaw kay Njaay Njaay waaw. léegi man bi dem Màkka oh soxna Ramatu Njaay dagg na Njaay ñu ngi koy nuyu di ko xaaraat te ngeen la doon wootee bu keneen ñëwee rek ñu dalal ko dese nañ ñetti minutes kon defe naa man ngeen a wéy di ñëw di indi seen i laaj ci jotaay bi wala seen i tontu alkitaab ngeen di déglu ci Sud FM seen rajo 98.5 Imaali jël ko. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah wa barakaatu. yaaram na nga tuddee fi naa ngi tudd Mouhamadul Amin Sarr. Mouhamadul Amin Sarr. Babou Salam Pikine. yaa Mouhamad. ok Sarr ahlan Saar ba ndam Saar Saar. ñu ngi leen di nuyu Oustaz Alioune Sall. jërëjëf Saar. alhamdulilah waa Babou Salam ak leen di nuyu. ñu bi. ndeysaan jërëjëf jërëjëf. baarakallah fiikum. gis ñu ngi lay ndokkeel bu baax a baax ci yëngatu yu am solo yi. xanaa kon xanaa kon xanaa dégg kon. bi bi nuyu sànq. maa ngi lay dégg sànq kay. ndeysaan. alhamdulilah. lu amul seede baaxul. ma bëgg cee wax tuuti rek. bismillah waaw ah, bismillah. moom ñu toll ci 8 mars. ci wàllu hmm. jigéen. Hmm. li ko ci wax rek mooy dëgg. Hmm. dama ne jigéen moom lislaam rek moo ko jox turam. Mm-hmm. boo ko delloo ci baatu araab bi rek. Mm-hmm. boo bëggee xam ka mooy jigéen ci lislaam mm-hmm. ñeel almar atu. waaw. ndax baat bi mi ngi jógee ci almuru atu. waaw almuru bi firi ci ci ci lislaam borom joomu joomu. sàmmonte am looy joom. waaw mbañum rus. mbañum rus. <laughs> nga xam ni moom islam. ba muy wutal góor tur mhm. naam sax dina ni almar u ci góor mhm. waaye bu dee jigéen moom mhm. mar atu rek la koy tuddee ndeysaan mar atu rek ci la koy tuddee nga gis ni kon jomb jomb yooyu di bëgg lu baax ak di bañ lu bon nga xam ne jigéen yëpp moom nañ war a mel nga xam ni nag léegi boo xoolee baat bi euh, am na mufrad ci arab ngir jigéen na war a mel. Mhm. ak ni mu raaree léegi ni mu jafee. Mhm. mu mel ni baatu islam bi da koo xamal baatu arab bi. Mhm. ba tax wutalul baat bi baatu jamono. Euh, baatu maratun su koy def jamono rek. nisaawun lay wax. yaa Mouhamed. waaw xam naa ne dafa dafa cate lool waaye waroon nga teel a dugg de. <laughs> waaw boobu de <laughs> waroon nga teel a dugg parce que ni nga ni nga ni nga mar at ak muru bi moom macha allah. wala nga ñëw ci jotaay bi wala nga ñëw wala nga ñëw ñu dalal albidaaya wala <laughs> waaw albidaaya wala yeneen jotaay yi ci nga ñëw ñu toog waxtaan ci bu baax baax. incha allah jërëjëf Sarr jërëjëf Sarr jërëjëf Sarr daa mel yaa ngi doon téléphoné sànq. Mhm. yaakaar naa ne lu jiw a jeexul. jógu fa kon ñu bàyyi la nga dem te ñëw. ngeen bàyyi ma dem te ñëw fa may jëm doom fa yàgg incha allah alkitab ñooñu may sunu émission alkitab kon tabarakallahu dix a jënn ba direct 35 ñooñu ñooy suñu partenaire yi ñu àndal dañu daal di walbati ko delluwaat si waat ci jataay bi nag daal ni oustaz Alioune moo ci tegee xanaa jaajëfal suñu <laughs> baax looy rey. Mhm. waaw tey ak la. waaw sax mi rek raw coxam coxam ñoom ñëpp a ñëpp comprendre vraiment nag ñu oustaz ñu nga wax jigéen ñi nag jigéen ñi su defee moom. Mhm. gàcce nga raam. waaw ndeysaan dëgg yàlla indi nañu yëpp. taabal jaa ngi fees del xam naa tey Nicolas moom. bàyyi ma alhamdulilah Nicolas Nicolas tardé na. waaw émission bee dàq ndékkeem li de. puuf sax déggoon naa dem mu ne dana xëy ñëw waaye ma bàyyil ko fi kaas a ba léegi ñëwul <laughs> Nico. <laughs> Nico jaajëfal bàyyi Omar bu baax. waaw ndeysaan Euh, kenn du ko kenn du ko kii. ndax dafa yàlla njiit lu mat njiit la. Hmm. alhamdulilah ndax li wax lu nekk xam na na mu war a defee. Hmm. te na mu koy defee te bis du reen rek de. dëgg la at mu jot mu mu mm-hmm. euh, ba ne xëy njaw nuuro léegi daal moom kontaan nañ man ma yàgg sax lii première meen kay lañ koy def wallaay oto yi daa rafet di ko def huit suñu ah, ah, ah. mm-hmm, feet nag <laughs> suñu euh, mooy nekk suñu feet incha allah je pense que danoon nu xottil <laughs> dëgg la dañoo xottil tey tey suñu jigéen la xottil <laughs> <laughs> mais le premier mai peut-être ñun ñëpp la ñuy xottil. Ah, ah, normalement. incha allah parce que waa waali dina tax jógay siiw. Uh-huh. ñun ñoo tax jigéen ñi siiw kan. Uh-huh. ah ah, ah tubarkalla. waali <laughs> waali tax jigéen siiw. <laughs> ñu laalal leen bu baax a baax ñu laalal leen bu baax vraiment tànnaa ngay mat na. waaw gis naa maam jaara sol tey baas bu yéeme. desul wa waaw desul wa. nga xam ne moom kon waaw tey baasam bi tubarkalla. Hmm. ndey mareem itam tey baasam bi tubarkalla. gis nga ah, gis itam fi mu génn baax na. waaw ah. gone yi itam stagiaires yi. ñoom itam wax dëgg yàlla. Eh, xam naa ñoom seeni tey baas jotuma koo xool. ay boobu <laughs> waaye tey baas yi mag ñi daal tubarkalla yu ndaw ñi nag ma bàyyi la ak ñoom ma bàyyi la ak tey baasi gone yi. sama morom yi. <laughs> waaw ñoom day Fat Ndiaye xoolal seen tey day Fat Ndiaye ñoom daado daado yërëguma juróom xaw ma fu mu ne <laughs> madame loolu rafet na loolu oustaz. a neex waaw tey loolu ak yëg la te day sawarloo nit ñi ci liggéey bi. jàmm rek a neex waaw tubaarkàlla dem ñibbi fa nga dëkk wala ñëw sa soxna ngàbbu ab piis ci sa borom kër ngàbbu ab piis ne ko suñu directeur moo ma ko ci barabu liggéeyukaay ba dañuy yëg ne daal foofa yaa nga fa ak jàmm te am nga fa wàccuwaay tubaarkàlla yàlla te nag oustaz euh, hmm. euh, du leen bi. Hmm. de kat suñu mu ngi wax ba sànq rek. waaw quatre heures du matin. Hmm. quatre heures du matin rek am na koy xibaaru fajar yi. dëgg yi. waaw ba minuit. ndeysaan vraiment lii kon nag félicitations. merci mille fois. yaa ngi woon ci sponsor yi. waaw sponsor yi nag. waaw euh, bi waaw kon ñu gërëm baax oustaz comme ni ko faral def. suñu sponsor yi ndax daa nga wax ni émission bu amul sponsor rek du am xorom. te domb shot la bokk. waaw loolu dëgg yàlla. waaye jiital ci nag waaw maam jaara waaw mm-hmm. jiital ko ci de. Euh, mm-hmm. jigéen ñëpp dégg naa moom la ñuy tàngale café léegi. Mm-hmm. waaw loolu la ñuy bu ñu toggee ba noppi nag bay raxas jëm jëli madaar. waaw eh, est-ce que madaar waaw. bu ñu añee dal ci lu naan ndox nag. ñu jëli Free Industrie. naan ci ndox moom nga xam ne mooy waalo. Ah, waaw waaw. karo yi nga xam ne mooy karo seen karo kër xaadim na <coughs> <coughs> ma daara ci gaaw oho oustaz nag qualité karo bi waaw ak qualité qualité gaz bi. waa ji nee na dugg dugg fa te sa aju soxlawul. Hmm. Hmm. fajuwul. Hmm. nee na mënut nekk. ndeysaan kenn mësul gis. defal leen barke. <laughs> tubaarkàlla ndeysaan. ay xale yu yaroo fa nekk nag. Ah, man bari naa fay tànk. ndeysaan kon am na solo suñ beneen sponsor bee oustaz di waa C3S. waaw waaw ñoom itam xam nga seen yaatalu mbindum alxuraan. waaw xam na loolu ñun waa daara ji lañ ko defal. daaw yéeme woon na. waaw te maa ngi yaakaar ren lay gën a yéeme. tubaarkàlla nee nañ nee daal seen maanaam dépôt yi ñi nga xam ne ñoo war a bind seen dépôt yi tàmbali nañ ko première lay am bala vingt bala vingt waaw ku ci bëgg a bokk rek nga bind euh, am xët ngay jël bind ci fukki min ak ñaar def ci sa adresse yóbbu ko ci C3S ba gën a jege macha allah loolu ah. li muy daara la uh-huh. jërëjëf C3S waaw euh, oustaz euh, dama am lu ma bëggoon fàttali ci Alioune Lo uh-huh. fàttali nag 2014 yaakaar na 2013 bi ñu jàppante moom léegi xam nga joxoon nañu fi gaar chaque mois nga dem ñu sarcel la ko waaw maa ngi lay fàttali maa ngi lay feetlee ne ñun man mii de mhm. ba léegi ñu may sarseer ñun ñëpp di ñun ñëpp di yàlla ba lay bàyyi gun parce que man fi ne man tam mhm. daara ji ñu ngi sox ñu ngi soxla fanweeri gaz par weer mhm. waaw waaw léegi nag togg añ ak reer rek ndékki ndeysaan man nag far damaa mujj waan foofa la naan indi leen fanweer ñu indi fanweer ma yëkkati ñu calculer def loolu ñun tam. loolu man jënd gaz fenn nag fu dul foofu man sax dama ko fàtte woon ba bëgg na sama doom ñu ne boobu jox damay dem loobu maam Dia ma ko lu fa xew mu ne damay chargé gaz man ko loolu ngeen ba léegi. ndeysaan moom kay ah na ko yàlla barkeelal bu lii bu lii dakkul lii du dakk waaw góore waay yàlla na ko yàlla barkeelal jëf loolu jëf ju am solo la merci beaucoup mm-hmm. jaajëfal encore bu baax a baax itam ñu nekkoon ci sirba bi saa waaw tabaarakallaahu yàlla taxawu leen bu baax a baax amin amin te defal leen xéewal day taxaw sax taxawaayu sponsor ñoom it incha allah tabaarakallaa tabaarakallaa ayca imaali kon nag ñu ñëw ci ñaa ñu jaaroon ci buum gi te laaj seen i laaj ak seen i commentaire oustaz mm-hmm. ka ci jëkk mooy suñu mbokkum baax ma le suñu doom baay Moussa Diallo euh, sant yeeg nuyoo yi mu indi yëg ak nuyoo waa mbaax nag dëkk yi foofu yëpp moom fi dal la euh, laaj mu la ko delloo mhm. muy aaya ya mujj ca sootu Muzammil insaan euh, bu tombee fi suñu ban suma xam xam naa dama koy tënk rek mhm. inna rabbaka yaalamu annaka taqumu adna mhm. min sulusi layli wa nisfahu sulusuhu wa taifatun min allasina maak wallahu yuqaddiru layla wa nahaara ila axiri bismillaahi rahmaani rahiim subhaanaka laa ilma lanaa illaa maa allamtanaa innaka antal alimul hakim ginnaaw ñaan yeeg ngërëm yeeg yëpp tabaarkalla laay ji muy laaj ci suuratu al muzammil Oustaz Alioune yonent bi sunu borom daf na ko iqra da ngaa bëgg a defar pénc mi mm-hmm. civilisation yi fi nekk neexuma dalal jàng ndax nga mën a def bu gën yi fi nekk iqra civilisation yi neexu bi mu jàngee ba noppi nag war a changer civilisation yi hmm. mu ne ko yaa ayyuhal muzammil xumil layla ku bëgg a defaree da defaru ku defaruwut mënut a defar kenn kenn amul defar hmm. léegi nag saar woo mu ne ko defarul hmm. bi muy jeex nag la ko wax ne gaa yi ànd ak yow te bëgg defaru xam naa ci ñun ñu ngi ànd ak yow inna rabbaka yaalam annaka taquumu adna min thuluthay leyli wa nisfa wa thulutha wa taifat min allasina maak am na sa gaa ñoo xam ne foo jóge ñu jóg loolu nag lu baax la ci taalibe ak sëriñ wallaay di def li muy def mhm. dana tax nga jof fam jof wa taifatum min allasina maak mhm. xam naa ne saa boo jógee mhm. am na groupe bu jóg ànd ak yow boo xiyaamee ñu xiyaam waaw boo ngàtt ngaa ñu ngàtt nga dëgg la boo waaxu ñu waaxu boo ñukkee nu ñukk mu ne ko man yàlla nag guddi guddi ga gu gàtt gi googu moom sama affaire lu seen affaire yéen xam naa ni mun leen a compter ne exact fulus bi fii la tàmbali fii la jeexe nisfu bi nangam calcul yooyu da ngeen ci sonn su ngeen di naafil nag mm. faqaroo maa tayassara minal Qur'aan mm-hmm. li ngeen jàng mo li ngeen mokkal hmm. tari leen ko hmm. waaye oustaz Alioune foofu tam ci tawil hmm. mooy jàng leen alxuraan la ngeen a tële kay ndax yàlla xam na ne feebar a ngi ñëw yàlla xam na ne ngi ñëw xam na ne liggéey ngi ñëw yàlla xam na ne kër këri pour diini ñu taxaw ngi ñëw kon nag faqaru maa teesara minhu lu ci waay man rek baax na góor leen jamono bi nga koy man nag. xeebu <laughs> ma dara. mu ma dara. dégg nga mm-hmm. te nag. Mm-hmm. fu ngeen tool di leen taxawal julli. Mm-hmm. di joxe asaka. tey lebal yàlla nag. delal ma lebal. <laughs> yàlla beneen affaire moom lépp bu noppi naan delal ma lebal. wallaay ndeysaan na nu ma lebal. bëgg na yërëm rek. waaw. xam nga dafa am ñoo xam ne yàlla nee na. buñ ko yóbbantee ci moom dana ñëw. mu ne am na ñoo xam ne dañuy lekk yóbbante yi c'est-à-dire c'est-à-dire boo ñëwee Oustaz Alioune Mbaye nga jox ko dix millions waaw bar oh Mbacke puusal waaw ne ko am yàlla jox loolu maa ko def ci liggéey bi suñu borom ne ne loolu danaa ci jot waaye léeg-léeg nga jox koo xam ne ki du ma ci jot leneen la koy defee hmm. kon ki ngay jox lu jëm ci yàlla daa am nu mu war a mel très bien du ñëpp la ñuy jox yóbbante bi yàlla déedéet déedéet waaw góor hmm. du ñëpp la ñuy jox yóbbante bi yàlla moom na wax sax ne booy bo booy booy woo ko ngeen di bokkal añ. Mhm. tànn ko. waaw mhm. ah, ki ngay bokkal lekk. ki ngay bokk très bien ki ngay bokkal lekk nee na kooku sax tànn ko. la ilaha illallah. ki ngay jox tas tuut moo tax léeg-léeg mu nettali leen. Mhm. waaw góor gële nekkoon ci daaru gay. waaw waaw góor gi Ahmed Gay Ahmed Gay Tamba yàlla ko yàlla yërëm. amiin tuut tuut tuut. mina saalihin. nga ne ko oustaz Mbacke si lii mi ma waxtaan ci rajo ba. def naa la Oustaz Mbacke. Hmm. ñaata saako ceeb nga soxla par weer. wallaahi ndeysaan ma ne ko ah, gay bëri ko gay koo bëri lool xam naa boo amee ñett rek mu doy. <laughs> dégg <laughs> kon nag mu ne lebal leen yàlla. Hmm. wa ma tuqaddimu li anfusikum min xayrin hmm. tajiduhu inda allah ndeysaan yàlla mu ne li ngeen may lebal di ko dawal. bu ngeen ñëw fekk ko fi. te kenn du ma joxub dërëm fekk fi bu dërëm. benn nga may jox fekk fi fukk. allahu akbar kii daal ñi may wut bor daa amuk fay. très bien. moom mm-hmm. Cheikh El Hadj Malick daa toog ca jàkka jay jàngale. Mm. am ku fa ñëw di yalwaan. Mm. mu xool wetam gis fi aw mburu wuñ fi teg kilo mburu mm-hmm. mu jël ko rek sarax ko ko noonu. la ñu toog ba 9 heures de mu jàpp 10 mm. am ko fa ñëw indi juróom-ñeenti mburu ne ko dafa am ko la ko sarax. Mm-hmm. ku ko jox jàkk ju sarax. maam Cheikh El ma xam nga lu mu ko wax. demal jëli ba nga ci wàññi. du juróom-ñeent laa war a am. foofu eh, war a am mu ne ko juróom-ñeent la mun ne mu ne kon delloo ko ko. Mm-hmm. waaw fukk la. waa ji ne ko ay lii woon fukk la. Mm-hmm. maa jël weer na sama kër. Oh. lii rek. nu mu ne fukk la. waa kay góor ga waññi ko mm. yow noo xam ne fukk la. Mm-hmm. mu ko yàlla moo ne ku ko jox benn. Mm. mu jox ko fukk da jox juróom-ñeent ak soos muy fukk. waaw mu ne ko lii nga nu la ilaha illallah gëm yàlla ak doyloo ko yee ca aju foofu nga toll noonu waaw léeg-léeg euh, jël ko mu dib som nga ne ko yow daa gën di jëndi ay piccëg euh, xëy naan damay togg laaxi sarax ak damay woote wàccim kaamil ak yooyu am na sarax yoo xam ne oustaz day amal nit ki njëriñ am na benn njëriñ daal Serigne Fallou bi bu xaadar buñ ci waxtaan daf ne hmm. daf ne hmm. dafa am sarax yoo xam ne ci barem bi hmm, binduñu leen fa waaw bokk ci wërtu dugg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 jërëjëf ci ànd beeg si defem seen rajo 10h jot na ba te 53 minutes fii ci studio bi tabaarakallaahu ñu bëgg a wéyalaat jataay bi. bismillah. gën jëf ci ànd beeg si defeem seen rajo kon 11 euh, li ko tey jot juróomi simili la oustaz Alioune lan moo ci tegee. xanaa jaajëfal la bu baax jaajëfal euh, sponsor yeeg euh, publicité yeeg ñëpp ñu jàpp ci émission bi ci jii jamono. Mm-hmm. ñu ñëw na kon Mbàkke yaakaar naa ci euh, li des ci laaj yi mbokk yi. tubaarkàlla incha allahu taala noonu la ñuy def gannaaw bi ñu noppee ci sa mbokk mais di Moussa Diallo Sanna. mais mais mais Moussa Diallo Mbàkke fi mu génn fi mu génn am na solo trop. am na solo ci man yaakaar naa ni. kon ndekete préparation nit ki. Mhm. yàllaa ko njëkk a def. Mhm. waaw bala nga dugg ci penc mi di laaj réew mi. Mhm. wala bala nga dem di wane. ci diine. baa ngi nekk ilimaan. wala ilimaan wala lu mën doon. waaw da nga fekk nga pare. da ñu defar la nga door a mën a jóg di defare mm. oustaz el boo seetloo alxuraan mm-hmm. ba mu ne iqra mooy lan jàngal mm-hmm. ba mu ci noppi yaa ayyul muzammil waaw jógal defaru mm-hmm. ba mu ci noppi ne yaa ayyul mudaththir <laughs> jógal defaru waaw dasir jógal defare jeex na parce booy xool dasir bagage yi mu ko booleel yëpp ni ko làmbool yi te dem. Mm. waaw mooy defareel rek. xum fa anzir. waaw jógal defare. Mm. Mm. fële na xumi lay la. jógal defaru. jógal defaru. cey kon da ko doon defal formation ngir mu mën a former ji. très bien cey sama borom. lay jalla jalla loo waaj sa kamaa moo tax ngir penc mi jagit foog nu def noonu ki bëgg a defare na defaru wolof day wax ne bala ngaa laax jaay laax lekk laax lekk ba pare parce que boo suuru ci laax bi ngay di jaay. Mhm. da nga martu ba nit ñi dàq la. dëgg la <laughs> wallaay ndeysaan dëgg la de oustaz. waaw séddale lu bëggut wala lu mu suur. Mm. mooy gën a rafetinu séddaleen ki nga mm. xam ne day séddale ba pare gën a xiif ñu ngi koy sédd. tabarkalla mbokk mi itam nee na moom liñ doon wax sànq. Mm-hmm. dafa mas a xotti bassin. Mm-hmm. saraxe ko. Mm-hmm. kenn yëgul. waaye nee na li ko ci yàlla fay ci bassin sax daf ciy tiit. waaw. c' tabarkalla mu ne ko yàlla nga dajeeg sama gars yi waaw dëgg la de <laughs> mu a oustaz sànq bi nga ne eh, oustaz Alioune Mbaye ngeen ko yokk euh, dix millions waaw eh, dafa mel dama doon nelaw koy jox ni moom may ne kuy nelaw ñu jox ñu fëkk la ñu fëkk la waaw ndeysaan waaw léeg-léeg euh, nañ ma baal ci misaal mi jal seen bu dukkëre ma ca marché aslem waaw léeg-léeg mu ñëw kër daara ja waaw non c'est extraordinaire naa yem foofu rek waaw dëgg la moom kay na yàlla fay leen ñoom ñëpp am na ci gars yi yàlla yi de jigéen yàlla waaw jigéen yàlla yi dem ñoo xamante yàlla saf na leen lool tabarkalla ndeysaan wala fa dayee ñoom ñu gis la waaw hmm. ah, keroog moom dépasse juróomi fan am na solo de jërëjëf am na solo de <laughs> waaw waaw léeg-léeg nga am na jigéen ju fël ca daara ji lool macha allah hmm. mu wax turam waaye daal mu nga noonu Hmm. am na solo de ah, mi ngi may dégg xam naa. diine jigéen diine daal xam naa ne jigéen ñi kenn ëpp lañ ci doole moom. Hmm. Ah, lañ ci. lool lool sax. yàlla na yàlla fay leen bis bi moom gàcce gàllam seen bis moom. <laughs> ayca seen seen da ngeen koo mérito. <laughs> barkalla sëñ Mbacke. <laughs> ku ci topp ayca ki ci topp mooy talibu Cheikh. Hmm. sopp Cheikh Sidil Makhtar. radiyallahu taala anhu moo ci topp pàcc. ok taalibe Seex ñu ngi koy nuyu Oustaz euh, jigéenu jotaay bi la ab diir ngi nii muy dugg te li muy wax lépp am solo nee na dafa bëgg nga ñëwal ko daal ci jigéen ñi lan moo leen di xaar aljanna yan la leen fa yàlla dencal. Euh, yàlla kay lam denc ca aljanna. Hmm. góor jigéen la wax ne dencal naa leen ko. Hmm. waaw amul lu mu leen fa jagleel ñoom donc maanaam yéen ñu ne jël yéen yéen a jël lii hmm. déedéet daal aljaan daal ca neex ba hmm. ci lay neex mais est-ce kon gënta neex ci ji euh, ci góor ñi nga xam ne ñoom xam nañ fa ay óorul ay ni yu bari ñu leen bët ya day rëy jigéen ñu rafet la ñuy doon ñu nàngam la ñuy doon daa mel ñoom yàlla beral na leen fa loxo xam nga Mbàkke hmm. jigéen kenn du ko ti kenn du ko joxe tiitaru sa jëkkër ji bëjee daa rëy daa rafet ak dafa njool ak dafa gàtt yooyu yitteelu leen moo tax comme yitteelu leen yàlla du ko def foofu am solo rek mhm. est-ce que looloo tax ñuy laaj ñoom lan la ñuy am ndax dañuy déglu léeg-léeg ñu naan àjjana ji góor gu maanaam góor gu nekk gën a néewi soxna dana am ñett téeméeri soxna waaw nga ñoom itam ñu ne waaw ñun lan la ñuy am kon ñoom li ñu am dafa ëpp loolu te dàq ko lan la bànneex bopp loolu jeex na xam nga <laughs> sëñ Mbàkke mm. boo gisee ñun ñu wax naan da ngeen am téeméeri jabar nangam ak nangam mm-hmm. soo ko seetloo sax nun suñu mm. sunu feebal sax su yàlla wax nun foofu mm-hmm. Mm-hmm. waaw waaw hmm. en ñoom lañ fi am surprise nga ko bëgg a tudd. <laughs> déedéet dafa mbégte boo jàngee yuufuuna bi nadri. Hmm. illaahi. wa yaxaafuuna yawman kaana sharruhu mustatira. Hmm. wa yutimuuna taama. mooy ku la dàq joxewu ñam. mu lay gën a neex kër aljanna. mën a taama. kuñ koy jox ala hubbihi dañ koy jox te fekk dañ koo bëgg. miskiinan wa yatiiman wa as wa asira. innama nutimukum li wajhi llaahi laa nuriidu minkum jazaa'an wala shukuuraa. innaa naxaafu min rabbinaa yawman abuusan qamtariiraa. léegi nag suñu borom tàmbalee fay mbàkk. waqaahum llaahu sharra daalika l-yawmi. doy na sëkk. wa laqaahum nadratan. wa suruuraa wa suruuraa. wa laqaahum. maanaam nga toog sa borom mu ne la agsi nga. nga xëm. nadratan wa suruuraa. wa jazaahum bi ma sabaru lañ mu ñu woon ba mën a joxew ñam ñu fay leen ko jannatan wa harira mu takki na fiya alal araiki laa yarawna fiya shamsan wala zam harira wa daanjan alim dilaluha wa dullal qutufa tadlila loolu ca ca jigéen ñi lay bokk ñi nga xam ne nangu nañoo joxew ñam mhm. wa shukran tabarkalla masha allah am na solo ko nangoo joxew ñam nangoo sàkk sarax nangoo def nangam aw yiw rëy la fay indi tabarkalla ndax it li nga doon wax léegi ci li muy defal nit ci àdduna defe naa la mu koy dencal fële itam moo ëpp foofu sarax yi am foofu tam kenn lox ni gaz bi jeex na wala facture courant bi ñëw na <laughs> fan defe naa wala gaz dina jeex Ahmed Aïdara nee ku war ak jaar dépense wàcc mhm. la <laughs> ndeysaan <laughs> nee na hmm. war ak jaat dépense wàcc na. <laughs> waaye li fi nga war a waaj jàdd dépense lay wàcc. dëgg <laughs> <laughs> léegi ne laataa ñu ñëw ci laaju mbokk mi. Mm. Eh, di dem ci publicité yi yaa ngi woon ci Serigne Fallou Abdou Khadir am na mbokk mu bind message di ko fàttali nee na fi nga yemoon ci foofu daa mel ne daal eh, maanaam sarax yi nga xam ne oustaz bu ñu ko dugalee ci barem bi. Mm-hmm. am na fa place ak sarax yi nga xam ne amu fa place. nee na daa mel ne nga doon junj ne am na sarax yoo xam ne moom amu benn kii. xam nga fi ne tabaskil nga teg ca genn wàll liibaru euh, pep mhm. yaakaaru mu yëngal liggéey bi waaw bu dee baskil moom mën naa bañ a yëngu mën naa bañ a yëngu mhm. sarax noonu la mel mhm. ñaar dërëm yeeg kayit tabax yeeg sondeel yeeg mbuusum soow meeg yooyu du dara dara jinne yee ko soxla dëgg la xam naa kon war nañoo def reportage laaj yalwaankat yi bu dee ñoom la sarax ndax ñoom li ñu sarax biir yu mag yi bari na ah waaye mbaake mu nettali ci la waaw Mor Khoudia ba bàcc ba ñuy yalwaan. waaw ñaari silmax hmm. dafa jékki-jékki nag waaw bàcc mun naa mun na ko tubaab baa ngi defar ay biyam. Hmm. ba léegi. mun na ko yaa tardé. Hmm. tardé. 1997 ba léegi hmm. tubaab bi defarul billet ndeysaan waaw pour lan laaj bi mu ne ko man ko dama amatul billet mu ne ko dafa xew ndeysaan weccare lañ may jox ndeysaan oh, oh. Oh, nga xam ne kon oustaz mi ngi noonu man léeg-léeg nga gis koo xam ne am picc lay téye oustaz di ci jabbutu man loolu ni ma jaaxale xam naa loolu bëgg naa nga ñëw na ci àtte bi ci l'islam ah, comme comme bref amul waaw mu dugalal leen jinglu bref bi ñu continuer bi leen doxal si après nga ñëw ci picc yi oustaz <laughs> bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu ala sayyidina waaw si naa kon waxoon naa la fa yàgg tabaarakallaahu dix heures jot wala onze heures jot na ba teg ñeenti simili Oustaz Alioune nga ne lan waaw li ci sëñ Mbacke doon wax ci wàllu <laughs> yooyu nga xam day mel ne lu ñàkk solo rek waaye nag rawat na Oustaz jëndum picc di ko wax sa soxla muy dem xaw ma ba xam sarax la wala bokkaale la wala lan moom la gën a jege bokkaale waaw bërki dem damaa ñëw ci station bi di jël sa oto bi dañ ko doon raxas mhm. jaay ko ci picc ñëw fa ma ne ko picc li muy jar mhm. mu ne ma fukk. Mm-hmm. ma ne ko suma la joxee ñaari téeméer ñaati picc yi naaw. Mm-hmm. waaw bari de. mu ne ma fukki picc xaw ma. waaw ñaar fukki picc normalement. waaw ñaar fukki picc ñaar fukki picc waaw. Mm-hmm. ko nag bu naawut yaa ko moom. mu teggi benn jox ma ma ne ko dama koy añi mu ne ma déedéet dañ def ci sa soxla ma ne ko picc mi boo mënoon a faj soxla doo ko jàpp di ko def ci kaaf. yow kay da nga ciy jublu libéré. ci biir waaw bu ko mënoon bu mënoon faj soxla. Hmm. doo ko jàpp dig ci kaaf. loolu dagan na oustaz jàpp ci def ci kaaf. di wër di jaay waaw waaw dagan na gaa. ki koy ki koy jaay moom li muy dagan comme jàpp picc lekk ko. Hmm. la ñuy ter daal mooy jàpp picc di foye. waaw ku nekkoon waaw gannaaw sañ na koo jënd lekk de dagan na. di xam ne la ko def yëf. waaye daal jënd ko nag di ca di taf li dara. téye ko ne ci yàlla. sa mujj wi yàlla na përër ne ko përër. wala nga takk ci téere bàyyi mu def <laughs> Eh, musiba ngoog nag. yooyu min abwaabi shirki. yàlla ci yàlla musal. mos naa gis wàccal neel waa ji wàccal mu dem rek moo ci mu dem. fi tax mu bind benn liggéey bàyyi ko mu dem. Mhm. xëy suba dem ci jaaykatu soow ba nag jënd sa mbuusug soow daal di ŋàbbu dem ba ci ba nga jox ko. loolu it su boobaa. yaa ci jinne yi ngay saraxeel. Mhm. ndax li ñu ci taamu soow ndax li ëpp ci li ñu naan la saraxeel nangam. Mhm. li ci ëpp yàlla taxul. sarax bi yàlla tax. yaa jékki-jékki ne ñoo xeet nangam Sall mbay yaa ngi dali foor mu ne waaw foo toll ci jàkk ji ma ne barab sàngam nga def sa saak fukki million ba lu ko ëpp oh. ak si ko asalaamaaleykum parce que boo ko joxee hmm. jërul nga naan ko ñaanal ma déedéet te lay yoon waa ji bi dañuy misaal rek di <laughs> misaal lañ nekk ñëwut hmm. jàmm nga ma ba xoolatoo ma di yuuxu rek dañuy misaaral. dégg nga laaj <laughs> lu am solo la. waaw. <laughs> yàlla na ñëw donc sarax. <laughs> sarax yooyu. waaw sarax yooyu. yooyu leen bëgg waaye sarax yi defal nang. Hmm. wëndeel ko ci sa bopp bi. Hmm. saraxel ak buñ. ndeysaan yooyu moom li ci ëpp jënd yaa ko moom ndege moomuñu yëpp. ndeysaan wallaay wax nga dëgg Oustaz léeg-léeg nit sonn ci lool. jënd mbuusu soowam wala mu jënd juróom ñaari sondeelam nga gis ku jënd ay pusa moom ñi yelwaan nii lu ne lañ leen di sarax. dé man am na commission ne ma. Hmm. dañ ko sarax libaru pont. <laughs> pont kay. <laughs> kooku nag sëriñ ba ko digal bu dee da koo digal moom. <laughs> kii moo mën a foyee nit. yëbalu pon <laughs> baax na imaam li gëral ñu topp ay marto ciy topp kon. waaw <laughs> ah gis. jërëjëf mhm. jërëjëf Oustaz na solo lool. Mhm. incha allah. kon nag ñuy jàll suñu mbàkk yeeg nañ ci télévision ah. Mhm. Xaasum Mbay moo ci topp. waaw Xaasum mu ngi nekk fële ca Diourbel. waaw Xaasum Mbay ci Mbàkke Bawol. Mbàkke Mbàkke Bawol waaw Oustaz Xaasum ginnaaw siyaar yi mu indi fële colère gi. Euh, moom nee na dafay laaj. Mhm. ndax benn xaritu chrétien mhm. comme ñoom ñu ngi ci seen ci jamono yu koor gi nii nii nii. ma mhm. euh, daal mu tooñ ko ni ko jox ma ndogu. jox ma jox ma ci xaritoo. mu est que loolu mm, dara dina ko ci topp yooyu. dafa am yu sunu borom maye. dama ci alxuraan da ngay dégg mu ne. laa yanhaakumullahu an illazina lam yuqaatiluukum fi diin walla mhm. wa lam yuxrijukum min diyaarihim an tabarruuhum allahu akbar yàlla ne ki nga dëkkal bokku leen diine hmm. te xeexu la xeexul sa diine hmm. terewuma la nga def ak mbaax jëme ci moom hmm. togg yàkkal ko mbaa xottil ko mbaa may ko waaw wa tuqsitu ilayhim te ngeen maanu ci ñoom bañ leen a tooñ kim tere daal innama yanhakum laahu ani lazina qaataluukum fi diin wa axrajukum min diyaarikum wa zaaharu ala ixraajikum an tawallaw nee na nga xam ne dañ leen a xeex génne leen ku jóg di leen xeex ñu sotle ko kooku moom ku lëngoog ma mere naa la su ko ran ci laaj mbaam sal bi kon jox ko mu dogg daara ni ko ci insha allah daara ci wallaahu taala jërëjëf kon mu ngoog kon yëf yaa ngoog xaasum yaakaar naa boobu rek rek laa laaj waaw kay loolu rek mooy ab laajam ñu ngi koy jaajëfal ki ci topp oustaz soxna fii la daaleeb aw turam xam naa kon muy am nogay rek moom it euh, nee na mardi gras euh, nga xam ne mooy mardi ju mujj ci weer wee di dugg ci weer wi nga xamante ne ñi ñu bokkalu diine pas-pas la ci ñoo ak yu ñu cay def euh, xale yi ñu jàngale ñu leen di soppil ak col solal leen colug mag décorer leen daal <laughs> nee na loolu nan la ko lislaam gisee xanaa tere ko rek xanaa tere ko rek ñun feet yii sax boo mee soo koriteeg tabaski rek yi ci ëpp dañ naa la boo ko defut nii ñu tere la ko wax ma naa boo xam ne bii nag moom bokkuloo ci nga fab sa doom solol ko pour yëgal ko ne bis bi bisub feet la léegi yëg-yëg boobu muy am moom boo léegi boo ko bëgg jënd dañ la të ñun yontu dafa ñëwoon fekk waa Madina yor ay feet mu dindi yëpp nanu am ngeen korité am ngeen tabaski doy na sukki feet noonu nag bu korite tabaski ñëwee la yàlla xam doy nag. Mm-hmm. du njëgal suñu doom yi sax ni ñu ngi ci. Mm-hmm. waaw ñun suñu bopp sax léeg-léeg ko yëg mhm. reportage yi ñu ngi koy def ci ñoom ñoom Hafsa mhm. ñu ngi koy def ci tamaate ji yëkko naag pa pomme de fu mu toll yal na nu yàlla dimbali kon mardi gras mun bokk mhm. am na soññe nag goo xam ne sax xam naa borom ko bu beneen nga def ko ci ndax tam ñu yore télévision yi yore rajo yi su feet yi ñëwee toujours ci liñ ñuy wan mooy njaay mu cher mi ah ñëw ci dëgg dëgg feet gi feet gi duñ dem fekk ñi nga xamante ne ñoom ak yi nan lañ ko dundee waaw xam nga hmm. organe de presse boo ci dem dafay am hmm. ku spéc spécialisé wu ci sport am koo xam ne ci politique la am koo xam ne ki ci hmm. eh, ci ci ci ci culture culture la. am ci santé am ku ne ci. am politique léegi nag est-ce que am na journaliste boo xam ne bii spécialiste la ci l'islam looloo bëriwul ah loolu lay affaire bi parce que même màggalu Tuubaa gi wala gàmmu Tuubaa gi li ci ëpp ci li jox ay papier mhm. mooy ndox sàngam manque na ndox amul fii coupure amoon na fee ah, nangam parce que nag yooyu yooyu spécialisé wu ci yooyu lañ jàng mhm. waaw dëgg la de dëgg la de walaay wax nga dëgg. moo tax barki démb bi suñu mbàkk nekk ci Diourbel daal ne allo <laughs> affaire bi de ça m'a fait beaucoup kontaan euh, quoi. <laughs> macha <laughs> am solo la. loolu ma koy waral doyoo ci seede doyoo ci seede. alhamdulilah cofeel gi yëpp de. macha allah yal na yàgg. amiin euh, ka ca topp nag Mbacke. Mhm. mooy bul découragé. waaw euh, bul découragé tudde boppam. Mm, mm, mm. xawoon nañ ko laaj waaye ginnaaw bi mu posé question bi. donc am na lu xel mën a jàngale. Mm-hmm. <laughs> ok. Mm-hmm. Euh, oustaz bul découragé nee waaw ki judduwul ci bu mu sëy. ndax mën na bañ a liggéeyal papaam. mbaa mën na bañ a contribuer ci lii parce que comme bu papaam génn àdduna du ci doon. Mm-hmm. te papaam rek. waaw bu dee ci sariya day wax ne kooku amul papa. bu dee charia day wax kooku amul papa bu faatoo du ko donn bu kee faatoo du ko donn mm-hmm. bu dee charia moom loolu lay wax mm-hmm. te ki doon wàcc charia complexe wul te itam doxali sentiment mm. kon baa bu koy liggéeyal wërta jàpp ne jur laay liggéeyal déedéet moom daal da ngaa soxna am ca doom mm. doom la dalay toppatoo mm. wa qadaa rabbuka allaa ta'budu illaa iyyaahu wa bil waalidayni ihsaana mm-hmm. su fekkee du loolu nag alwaladu lil firaash d'accord léegi alwaladu lil su fekkee ne comme ñun sunu sunu sunu sariya sariya maslaa la euh, di nga gis ko xamante ni day def catastrophe finalement ñuy wax wax ba mu takk yaay ja mm-hmm. xam nga ko day daaj ñoo bokk ci biir famille bi donc léegi nag day nga bokk ci njaboot gi léegi nag ku ko lay ko war a wutal. Euh, kontam du tax ko defal naa nga wala defal naa nga mu wutal kontam. déedéet mm-hmm, mm-hmm. moom daal mënul doom amagul doom rek. ndeysaan charia daal moom lu yoonam nekkul daal. wala walaay ndeysaan. Mm-hmm. léeg-léeg muy ko yàlla ma ne gan doom ji doon kenn ci ñiy liggéey ci barab bi. waaye day jàpp ne sama bàyyi laay liggéeyal boo demee amu ca salaire wala ma nga ca nekk di góorgóorlu wala ma nga ca def nangam te oustaz yooyu muy def yëpp ndekete yoo moom defalu ko bàyyam waaye jenn waay la koy defal ci lislam waaw su dee jenn waay lay defal nag dañ ko waroon a waxaale kon mu di ko fay mu liggéey. waaw góor kuy defal jenn waay nag mën ngaa defal jenn waay. Euh, erreur léeg-léeg erreur yooyu di am. la kon kon nijaay yi yaay yi tante yi ñoom war nañu mën a teel a wax ak parce dem ba kooku génn àdduna mu nekk choc. Uh-huh. nit ñëpp a ñëw war nga. Uh-huh. ñu lay di xëcc sa loxo naan di la wax ci loxo naan ko bokkoo. Uh-huh. loolu da mën na indi choc. oustaz doom jooju gannaaw bi mu juddoo lan moo war baay bi ci moom kiñ ne mooy baayam lan moo ko lan moo ko war ci moom. dara dara lañ ko ci waralul. Mm. ndax ginnaaw amul doom. Mm. amul doom rek maanaam fayal comme njàngam euh, di ko xottil di ko faj bu feebaree et cetera bu fekkee nit dong la koy defal waaw defal nit baax na mhm. waaye dama koy defal doom nag bu boobaa amul doom mhm. na jàpp ne daal mi ngi koy defal nit waaw <laughs> dina dina am position ba gis la mhm. mais est-ce comment se fait-il euh, organisation yeneen yi mën a mën a mën a jàpp ñoo ñëpp dajale leen groupe leen éduquer leen di leen yar yow mi ñu ngi ni yow la amoo ci sañ nga yëlëb say loxo ah waaw léegi sëñ bi ak xaw saal mm. loolu xalaatu nit la rek lislaama lislaama ñëw tere ko ko ne ko amoo ci sañ-sañ du sa doom xam nga fi nekk nii mm. loolu la nday marem yéene yéene xaalis mm-hmm. munta jël ak këyit wu weex bind ci dix mille ne la demal jëndi tàngal déedéet déedéet déedéet jeex na ak lu mbind ma rafet rafet lu mbind ma rafet rafet du ko mën ndax du dix mille waaw <laughs> ah, bu ko yettee ba mu tollee dix mille du dix mille du tax mu doon dix mille ndax misaal mi leer nañ ni moo tax ngay dégg faux faux billet faux billet ndeysaan waaw leetim leetim faux kii la mm. maanaam ci façon bi mu ñëwee faux la daal légalu njàng jeexul saar waa jeex <laughs> keneen ki topp moom doom dafa lépp turist Mbàkke mm-hmm. aywa waaw kay kii lépp turu oustaz moom day dafa wax itam ci wàllu euh, jamono ji ñu toll mm-hmm. nee na daal boo seetloo li am ci wàllu sëy yi am ci wàllu njaboot gi da cee mhm. joxoon ñu mel ne waajur yi mhm. nee waajur yi daal daa mel ne seeni responsabilité ak taxawaay bi ñu war a am ci euh, famille bi am ko ci jabar yi jëkkër yi am ko ci seen kii ak wàllu liggéey yooyu yëpp daa mel ne daal dañ koo deful ni ñu ko war a defi mhm. ñun xam nga aw xeet lañ woo xam ne <laughs> tubaab bi daa fexe bañ réere sunu démb mu fexe bañ bañ réere sunu mag mu fexe bañ réere sunu bopp. wallaay lu rek la. Mm-hmm. mu samp fi école ne ja école bi jàng leen ma ci. Mm-hmm. jàng ci samay maam. Mm-hmm. parce que yéen amu leen maam. lu amu leen démb. loolu la ñu bi gëm loo tey ñuy dox ci loolu nag ba fii nu toog. waaw ñuy dox ci loolu ba fii nu toog. yàlla dañ nag ñu wëlbatiku parce que yooyu. métti na lool. ndax ñàkk xam sa bopp. ak ñàkk xam ñi nga am ak ñàkk xam li nga am. mën naa jural ku nekk tabarkàlla ne nun depuis 1960 ak léegi war noonu weesu fii. waaw. wa shukran suñ bekk moom euh, nogay la waaye vraiment waxtaan bu am solo la dugal waaw def na taale parce que taale bu am solo la mm-hmm. Mm-hmm. te kooku war na bépp borom kër wala bépp responsable mm-hmm. sa àq ak say doom si wàllu diine nga gën nga jël sa responsabilité waaw waaw effectivement am na solo mu toftal ci beneen laaj oustaz nee na mooy complexe ne dafa seetlu ne daal góor ñi nga xam ne dañoo am aw jigéen ñoo xam ne jigéen ñi dañoo man seen bopp boo moytu dañu am complexe lool ci yilif leen jigéen ñooñu it dañuy xaw a am nuñ mel ba yilif leen jafe waaw xam nga mu ñu tollee ci denc dafa am lu ñu wax kafaa hmm, kafaa kafaa mooy nga dem deñ ci koo xam ne ci wàllu intellectuel so réewu leen hmm. ci wàllu économie so réewu leen hmm. ci wàllu social so réewu leen complexe du am waaw waaye fii boo duggee foo xam ne fi jàpp nga ne ci wàllu économie moo la ci raw moo la ci raw wàllu intellectuel moo la ci raw wàllu social peut-être yéen ci tolloo wala moo la ci raw wala mu xeeb la sax <laughs> jeex na. Mhm. moo tax da ñëw ci kër gi rek léegi du too nekk boroom kër gi. Mhm. benn monsieur ngay doon. waaw ndeysaan. Eh, waaw am na borom am na soxna yoo xam ne daa mel ne façon jikkër yooyu rek lañ mën a am fi mu ne. ndeysaan jëkkër joo xam la noo ko bëggee rek. <laughs> ndeysaan yàlla na yàlla loo ko wax mu ne xaaral ba madame wàcc. mu <laughs> waaw mu jànq bi ne ko tontoo ma yekk añ mu ne noo xaaral xaaral sa tata wàcc. waaw ndeysaan xaaral madame ñëw. yàlla na yàlla yërëm Oustaz Naar Ndiaye ci topp waaw kay jërëjëf naan Ndiaye mooy sunu wëllëre wala nekk ca France euh, Paris mooy oustaz dem diaspora ginnaaw siyaar yi mbokk yi naar nee na dafay laaj naka lañ julee néew. tabarkalla yàlla na yéex a julee. amiin yàlla amiin waay. julee néew am na ay façon yu bari. Hmm. waaye bi xamee ne dañuy def li ñu tuddee tey euh, talfiqul fiqi hmm. mooy fexe ba ngër yëpp li ñu wax. Hmm. ñu tënk ko def ko benn affaire loolu ñaare léeg-léeg day day nit ñi pencum tey su boobaa da ngay jàng alfaate ba mu jeex nga kàbbaraat jàng salaatul ibrahima yi ba mu jeex nga kàbbaraat nag ñaanal néew boo kàbbaraatee sëlmal wala nga kàbbaraat ñaanal ñu koy julee te sëlmal mu ñeenti kàbbara boo benn la ci waaw bu benn la ci tey tam moo bi nga xam ne daanaka boobu neex naa jàpp est-ce que. wa shukran. jërëjëf euh, mu des na ci benn laaj mu nekk nag day dégg ngay tooñ Ndogoy rek mu ni kañ ngay invité Ndogoy nag ñu dégg baatam ci rajo bii. ah Mbacke kay invité woon na ko. waaw ah, ndeysaan. Ah. waaw waaw kon naat boo du ko rëcc. am na anniversaire oustaz boo xam ne. interview woon nañu ko. waaw waaw wax. xam naa léegi anniversaire bi ñëwaat sax mars mois bi mooy sunu anniversaire. le ah, vingt mars. def naa am mercredi lay doon. baax na incha allah mercredi cofodi ba xëy na danañ jéem a interview na koy <laughs> ak Oustaz Mbaye ñu ñëw def ay. témoignage ñu def témoignage <laughs> ah bi yoon nañu ko war a nag. waaw ah. plus cadeau. ah waaw plus cadeau yi. plus cadeau. waaw kon na ko ñëpp waajal waaye la 20 mars. le 20 ah. mars ah. Hmm. le 20 yow sax ci kilifa yow mi xam nga de mars moom da Tiwaawan dañ cee bari le. ah man di bari naa ci man de ah. bokk naa ci Mansour sëñ Babacar Sy. Hmm. sëñ Mansour sëñ ah. am. mars rek di mars mois de mars. ah mars moom kon beneen beneen affaire la. waaw non mars. suñ Babacar Sy le 25 mars bu baax. suñ <laughs> Babacar Sy le 25 mars. El Hadj Mansour mi xalifa bi day le 29 mars. waaw sëñ waaw mars. waaw sëñ Abdou mars. waaw. Eh, moom kay marché moom. macha allah marché rek macha allah yàlla na mu gën a marché. ci marché boobu tubaarkàlla la may marché incha allah kon nogay dina ñëw. Eh, incha allah mhm. ay ca ki ci topp mooy kan. Eh, ki ci topp Mbacke mooy. Cheikhouna Sylla. Cheikhouna déedéet. waaw Cheikhouna Sylla mooy. waaw kay ñu ngi koy jaajëfal nee na ndax gerte danañ ko génneel asaka. waaw borom xam-xam yi day daanañ ca werante. Mm. rawatina ñi dëkk lu mel ni Soudan ak yooyu. ndax ña ko daan bay dañ ko daan bay mbayum tóokóor. nga xam li nga ciy am du mat ñaari dab wala ca lay yem. ñu koy rëndi ñu nekkoon kon kenn du ko génne asaka. maam Cheikh El gis ni muy génne fii ci réew mi. ak ciy génn ci xaalis ni mu toll. mu daal dem ne wa mimmaa axrajnaa lakum minal ardi. daal di cay taalif buntu bu am solo. nekkoon dañ koy génne asaka. waaw ndax. loo xam ne mën nga ci am 600 kilos jëm kaw. Mhm. bokkut ak loo xam ne da nga am rënd ñoom seen yooyu. Mhm. Mhm. ñooñu nag loolu lañ ko jàppoon ñu jàpp ko ni moo tax mu ne kon dañ koy génne asaka. zakatul fusuxi. shukran. waaw kon boog nag waatu xaqahu yow yow la boobu mooy. waaw loolu mooy fay. bu pay bi. teg na ci beneen laaj. Oustaz Alioune Mbaye mooy ca Albaqara. la Seexuna si la ñëw. Albaqara euh, ay 253. di tolleeg euh, fa suñu borom di waxee tilka tilka rusulu faddalna fatahna baaduhum ala baadi minhum man kallama allah wa rafaa hmm. baaduhum darajat yaa ngi ci suratul baqara aaya 253 53 ci xisibu tilka walaay lisan hmm. sunu borom day wax alayhi salaatu wasalaam euh, li tudd aw gaay hmm. muy a rusul mu ne tilka rusul faddal naa baadum ala baad mu ne yónent yi yónent yi tolloowuñu ay garaat waaw. ñu tolluwuñu ay garaat. tolluwuñu ay garaat ñoom moo tax hmm. hmm. kenn ku ne. ne la sa cër doy. dëgg waaw kenn ku ne na sa cër doy. faddal naa ba ala baad. Hmm. daanaka minhum nag. wallaay ndeysaan am na ci am na ci ñoom. koo xam ne yàlla def na ko dama ne mu ne ko ah. loo yor mu ne aw yet. loo yor mu ne aw yet. ba mu koy la tax loo koy doyee mu wax ko la mu koy doy lépp. kon kooku yàlla daa wax ak moom. nee na waaye am ñoom rafa baaduhum ala baadin daraja am na ki ñoo xam ne yëkkati naa seen daraja am na ñoo xam ne dara tulul ci daraja jooju ulul mhm. ak vingt cinq yi nga xam ne tudd nañ leen ci alxuraanul karim mhm. am na ci ñoo xam ne moom daanaka seen tur boo ko déggee ba wétu ba nga koy dégg dina yàgg mhm. am na ci ñooñu sax nag dégguñ seen tur ndax seen tur nekkul ci alxuraan ndax ñetti téeméer ak fukk ak ñett ci al ambiya boole boole ñoom ñëpp mu nekk cent vingt quatre mille ama jamil ambiya i rusul fakk xadun min al ulufiya raju waaw téeméeri junni ak fukki junni ak ñeent. téeméeri junni ak ñaar fukki junni ak ñeent ak ñaar fukki junni ak ñeent. waaw macha allah ci ay wala ñoom ñëpp ci ay. 124000 124000 prophète. ngoog wallahu taala alam wa shukran ab laajam moom Serigne Cheikhouna Sylla euh, Oustaz Alioune Mbaye ki ci mooy Ibrahima Ka. Ibrahima Ka mu ngi woote fële ci Yoff euh, Oustaz. Hmm. Euh, ñaari commentaire la yu xam naa daf ko doon tuddee laaj waaye ñaari commentaire la yu juru laaj. Hmm. bu njëkk bi dafa wax ni euh, su mbokki jigéen ñi de daa mel ne 8 mars bi de ni ñu koy célébrer. dafa mel ni euh, feet la ci ñoom. te tey bu dee feet googu dana yeex seen doléance yi. ñu mën koo gaaw a jàpp. ba am luñ ca faj. ndax feet moom lekk ak naan rek la feet lekk ak naan la li ci ëpp génn daal gisaguñ ci. lu ci am solo. ginnaaw nag mu ne ci ba tey jigéen ñi. na ci ñoo xamante ni dem bokkuñu. jigéen ji yor dara. Hmm, day naqaree yor moo gën a naqaree yor. <laughs> jigéen ji yorul dara. ki yor dara moo gën a nangu. lay ni xas ba am salaire. amub hmm. oto. Hmm. am compte banque. Ah. pare nangu yor ko nag ba mel ni yorul dara. boo amul baasu diin dëgg. daf daf yombut. waaw mi ngi ciy am nag. nga am ba géejal. mel ni yorul dara. ndeysaan. Euh, mosoon naa ko nettali ci ay jataay. suñu yaay Khadija. ndeysaan radiyallahu ku ne xam na ne bari la woon na. dëgg la dëgg la salaam ku ne xam ne bëri la wutoon. Mm, mm, mm. mu xëy benn bis rek ne ko yaa Rasulullah dama laa soxla. mu na ko lu xew. mu ne ko damaa bëgg nga boole maak li ma moom moom. bëggatuma nekk màkk moom lii nga moom ma moom lii. ci Khadija. waaw boole maag li ma moom rek moom lépp. kon ginaar ak cuuj ak nen yëpp borom ginaar ak moom daal lu la ko wax boole ma ak li ma bu ñu waxee ne jigéen ju mel noonu daa raar wax ne góor gu mel ne yonent bi daa raar ci lu wér lañ loolu ci lu wér nag ndax am na ko boo ne kon ak li ma moom moom mm. sax nam lay moomet oustaz day moomet wu doy waar ñaareel waaw waaye sallallahu alayhi wa sallam tubarkalla waaw ki nga ne maanaam ki wax ni ni ko boole ma li ma moom moom day loolu daa war a dox digganteem ak ñaareel su fekkee daa fekkoon mu mu bëgg a ñaar am na kooku bu defoon noonu. boo ko boolee li nga moom moom. même boo doon ñaar la ko du yàq liggéeyam. mais dafa am ko xam ne comme moom bu la gisoon nga daal di bëgg dugg ci kii mu ne ah kon looloo tax. ndax seytaane mooy fexe ba li nga def nga yàq ko. ndeysaan. <laughs> waaw. Euh, oustaz booy fàttali ko sunu mag ñi. <laughs> Euh, maam Safiyatu Ñang waaw muy wajuru Alaaji Abdu. ndeysaan xeertu. dégg naa ñu mag ñi nee nañu. Hmm. gaal goo xamante ne ca jamono bi gaal di xew. Mhm. gaal goo xamante ne bois bi kenn xamul mel. Mhm. wër nañu matt amuñu ko. Mhm. mu daal di génne yére yi noonu ci biir gaal gi. woo semmiñ bi woo law bi ñu xar ko ñu toggee ko añ. mun ko lu tax mu ne jomb naa alaaj Malik ni ca daara jay jàngale. daal dong yëpp ne fa. wàcc war a añ. taajuma añ ngir amuñu mat. loolu xew na kër maam Jaara Buso. ndax moom yàggal foofa rakk jawoon foofa. moom moo aye te dafa taw te dafa tooy. mat yëpp tooy te loo loo bu gaas maam jaare amagutal. ndeysaan mun mu xar mu xar gaal ga jox ko. Mhm. lii nag mu ne ko damay bañ nga naajee añ sa borom kër ji la yan. la ilaha illallah. Mhm. maam Roqe ma Anta Ndiaye. Mhm. tubarkalla. ndeysaan. kooku moom la ko bëgg. gis nga Saalin. Saalin. bu fekkoon suñu tableau yi. suñu xale yi. suñu penc mi. danoo jàng suñu mag ñi. nooy raw dëkk yi. wallaay ndeysaan malheureusement. wallaay waaw xam nga oustaz Mbacké. dogu ma la dafa am benn directeur de chef personnel la ci benn société bu nekk fii. Mhm. dañu waxtaan ma moom barki démb. ba bu ñuy dugg ci sa domaine. Mhm, ndeysaan muy wax ni kun kaatiman bi oustaz Aliou Sall doon wax. <laughs> <laughs> nii war nañ ko bind ci. waaw buntu université yi. ndeysaan mu ni ma kun kaatiman jàngale ko ci biir université waaw ci biir bi de sauvé na ma. ndeysaan da sàngam nangam. Mmh. waaw dama jëndoon téere Sëñ Tuubaa bi. Mmh. ndeysaan ñuy traduire ko en français. ma di koy mmh. jàng. waaw comme dama bokkoon ci ñu sàmm ba ñu wooyee imaamu gox bi. waaw imaamu faculté bi ma nekkoon. waaw ñu tendre ma piège. boole ak ku fa ñëw. ndeysaan la tastaqil bi risqi. nee na kooku def na ci man un mois pour jéem a daaneel te jigéen la. Mhm. naayil kawaay ba waaye li ma gën a neexee saa ma saa ma ma xoolee fu ma bind naayil kawaay ba mhm. dafa mel ne sëñ que te ko ab taalibi Cheikh la de ah, bi rek benn programme waaw programme mu defar ah, la rek waaw ah, programme mu mhm, la gis nga muy naayil kawaay boobu sunu mag ñi yàgg fa tudd oustaz benn programme la naail kawaabi wal xawaani wa'tazil in tadnu minha min ridan laa taslamu maam Cheikh Alhaji Mal da koo feelu fële ne ko lan wa baa'idu bayna anfaasi nisaa'i wa anfaasi rijaali kalaamun sidquhu matu wallaay ndeysaan ñoom daal oustaz ñoo bokk benn terrain bu ñu fubale ni ñuy durublee bal yi sax daa nuru nun supporters yi noo muusul rek waaw nun nag noo fi nekk rek di supporter kenn bàyyi moom daal mi ngoog waaw mi ngoog waaye oustaz lu am solo la lu am solo la lu am solo la yàlla nañ yàlla nañ changé système bi <laughs> jàngaat réew mi jàng suñu bopp. waru bàyyi mbay weesu fii nu nekk. daa mel ne ci wàllu jigéen bu ñu ci tollee nii tey di ko waxtaanee. tey jigéen ñu ne bu ñu toogee seen barabu liggéeyukaay. waroon nañ leen a indil modèle yi ci réew mi tegal leen ko. at mu jot ñu jàng kenn. moo gën ay sandark mu ñuy jàng wala ñuy jàng ay jigéen ñoo xamante ne eh, ci yeneen programme lañ nekkoon. te nga bàyyi ci sawee jigéen ñoo xam ne ub nañ làmb. rek njàmbaar ñooñu lañ war a jàng oustaz. te ñoo gën a neex jàng nag waaw ñoo ñoo gën a neex a jàng te doyutum xëy parce que li tax mu neex a jàng mhm. mooy seen résultat mhm. xam nga tey boo tudd maam jaara mhm. am ku la tudd tey ca ca ca Angleterre waaw dendale ndeysaan waaye xoolal seen résultat dëgg la gis nga oustaz euh, nee nañ maam faa wàdd wele ba si Cheikh Sidaaji Malick demee jàngi waaw nga xam ne def na lu mat fukki at yoo xam ne ñëwut ca dëkk ma ndeysaan di ko di wut xam-xam mu ne ca dàgg ja di bojj si gi seen ko muy dox di ñëw daa sëpp kuur gi daane ba Ousmane si doon dund de ma ne kee dox di ñëw moom la Ousmane si mooy waajuru Alaaji Maalik waaw waaw nee na ba mu ñëwee ba nuyu ko da ko wax ne ko diggante bi nga fi jógee bi nga ñëwee am xam-xam xaju fi Maalik demal jàngi <laughs> soq mi ci bàlla ko barke mi ci ñaani oh, masha Allah xam nga xam nga nday yooyu nday yooyu jamono soxla na leen léegi nag sëñ Mbàkke waaw <laughs> yooyu yooyu buñ ko buñ ko buñ ko amoon ci suñ école yi mm-hmm. primaire ba université mm-hmm. keneen la ñuy doon mm-hmm. yàlla nañu moom suñu école yi. amiin yaa rabbi amiin yaa rabbi. tarkaal acca si ki nekkul ci nii. dem ba ne paayaar ay ku ne di mer ku ne naan xale yi xale yi xale yi di ñu liñ ci war lii rek lañ mën a. <laughs> ah déet jël sa doom dem ci jenn waay. Hmm. ne ko jàngalal ma ko te bu mu la niru. Ah. Hmm. Hmm. yombul laay ndeysaan macha allah muy lu am solo Oustaz jërëjëf Sa Thiam. <laughs> jërëjëf ki ci topp Mbacke mooy Nogoy numéro 3 moom la fa indi ziar rek. Mhm. Hmm? waaw docteur Alioune moo jotagul. docteur Alioune Gadiaga euh, waaw Ndogoy de moom Oustaz dolli woon na ci ne euh, daal nga soññi jigéen ñi ci wàllu oyof. waaw jigéen daa war a oyof Oustaz soññeel jigéen ñi ci ñu gën a oyof nag. waaw oyof de moom. Hmm. waaw du waxal loolu la mën a def. ñu ndax ku oyof. Hmm. di euh, doo diig. dëgg la dafa mën lakk gu ma son am ca njaareem. ndeysaan waaw suñ tubaa ne fere fere ya. daw leen wallu ji leen. ñu dem ba jël si mu leen a ah, mbaa lam fa yàq bëriwut. Mm-hmm. ñu ne ko déedéet yewoyof yëpp génn nañ leen. <laughs> mu tekk ba ñëpp tekk mu ne ko dellul ci la nga waxoon. mu mm-hmm. woyof lépp génn nañ leen. Mm-hmm. mu ne leen am bind ngoo. ku woyof it foofu rek lay mujj. ku fi diis mujj fa ya diis rek waaw ku diis diig <laughs> waaw ku diis diig <laughs> mm, mag ñi de jàngale nañ lu ne ci làkk bi dooro si la nee na rendez-vous le 20 mars incha allah incha allah <laughs> oyof daal baax na oustaz oyof baax na de waaw oyof baax na daa mel oyof mooy jonge nga waxoon waaw oyof ci sëy mm. diggante jëkkër ak jabar mm. mooy jonge mooy jonge waaw jonge mooy am na jigéen ñoo xam fu ñu meral loog seen jëkkër jëkkër jaay njëkk a wàcc dañuy mer di fuuñ fuuñ rek xanaa ñooñu oyofuñ de oh, déedéet maanaam dafa am koo xam ne. parce que ku dul mer. waaw yonti moo ne aljanna ngay dem. Mhm. waaw laa tax da war a kal janna mhm. fexeel bu bul mer rek. waaw oyofal rek. jeex na te foofu la ko oyof yow waaw oyofal rek parce que daa mel ni mag ñi dañ daan yar nit ci oyof tax ñu naan ko deel wuyoo sa santu jëkkër xam nga loolu oyof mënu koo wees jeex na ak naan ko na waaw dee ko wax ñi ba noppi di wuyoo santam léegi waaw hmm. waaw bu dee bu dee ñi ci contexte neex rek la waaw ah déet oustaz mbay nag na <laughs> papa wala ah déet moom kay <laughs> papa yi lan hmm. am ah. Ah, <laughs> danaa la ko dee liggéey. ayca ayca ku ci topp. Eh, docteur Mato Mbacké. docteur Alioune Gadiaga oustaz nee na nga ñëwal ko ci sóoratu nuur. waaw maanaam jëmmi saa wi ci boppam rek nga ñëwal ko ci ak yenn yi nga xam ne moom la lamboo. Mhm. sóoratu nuur dafa amoon jigéen juñ ñu doon wax suñu yaay Aïcha. Mhm. ndeysaan. suñu yaay Aïcha euh, yëfar yi commencé déclarer guerre yonent bi. Mhm. guerre des médias. ay guerre ko ci médias yi. jaboli kër gi. benn. Hmm. ñu ne ko da ngaa tekk sa jabaru doom. Hmm. muy hmm. information bu xibaar bu doy waar. ilaha ba ca des ñu ne ko sa soxna sii da da doon séq kenn ci waa kër gi. la ilaha illallah ah, wax ju ñaaw yàgg na ci penc mi. suratu Nuur ñëw nag ne naa leeral li xew. ak li am. waaw Nuur. loolu la saar bi di tekki. Oh, naa leeral li am. mooy Nuur. ñi nga xam ne jaaw bil ifki. usbatun minkum. wallaahi ndeysaan. if ifk nag la wax. Mhm. ifk mooy lan. mooy sos woo xam ne amul fu mu tege. waaw ñu ko wax nag mbooloo la ci seen biir. intox. <laughs> ki nga xam ne nag moo ko tawalal kibra. ki nga mm. xam ne dëggantaan moom la. Mm. moom maa ngi koy xaar bu ñëw dina ko duma duma yu métti. ndax mi ngi yàq sa kër gi. door nag na jigéen ñi bu ngeen bañ yi def dee leen soloo nii dee leen doxee nii dee leen nii taar bii na yem fii taar bii na yem fii taar bii na yem fii wallaahi wallaahi ci laaj Oustaz ci aay jooju boo xoolee Oustaz bi mu daaneelee mm. wax law laa istamihtumuuhu zanna al muminuuna wal muminaat bi anfusihim xayra nga xam ne kon xibaar bu ñëw rek mm-hmm. yow am na bu xibaar bi ñaawee yow nga rafetal ko wala du loolu euh, déggan si mère Diallo ndeysaan rahmatullahi alayha amin ngi nekkoon ci TFM ndeysaan daan wax ne hmm. bu nit ñi amul làmmiñu garmi hmm. fexeel ba am yow nopp garmi hmm. gis nga nopp garmi boobu Mbàkke moom la Abu Musa al Ashari yoroon xamu ah, Abu Ayub al Ansari yi nopp garmi ndax jabar jaay na ne ko waaw dégg li ma jégg mu ne ko loo jégg ndare ko koy wax ndeysaan mu ne ko waaw yaag moom ko gën bàyyi yaag moom ko gën naa nga wax a wax ba jeexal. Mhm. sunu bam ne loolu loolu moom a gënal ci information. Mhm. Mhm. te waaye attan na ko. sañ na ko xamoon naa ko. ñeme na ko. nee na loolu day yàqum penc. la ilaha illallah laa tahsabuhu sharran bal huwa khayrun lakum. yow mi wax yow mi wax jëm ci yow. yow mi wax jëm ci itam bu defee nii lu ñaaw la. ndeysaan laay ndeysaan dëgg la. nga jàll rek macha allah say point day yéeg rek. wax nga dëgg de. <laughs> am na solo Oustaz jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax. <laughs> tubarkàlla foofu am na solo. xam naa kii dañuy dab dabaatal ab laaj ci gannaaw ci li ñu doon wax ci oyof. Mm-hmm. nee na jigéen ñi nga xam dañuy jéem a xeeñcu diine Oustaz ak di ko dund nag. Mm-hmm. Eh, di muuroog léeg-léeg ñu ne Oustaz sàngam laa bëgg bay dagg di wadd. Mm-hmm. wala eh, yu demee noonu di ci góorgóorlu waaye léeg daal oyof moom mu mel ne day doon bind bu ñu fàtte. waaw xam nga lu tax li ñu nangu fee duñ ko nangu fii xam nga lu tax. la aqudanna lahum lu ci tegal. siraatakal mustaqim jeex na. Mmh. loolu mooy lan mooy seytaane nee na. Mmh. soxlawuma ña jaar ci yoon wële. Mmh. ñi jaar ci siraatul mustaqim laa soxla. laa bëgg a danaa fexe ba ñu gis gannu. danaañ fexe ba ñu baj baji. danaañ fexe ba ku leen nuyu duñ la fay. danaa fexe ba moom daal yu ne dina ko fexe. soo ko seetlu danaa fexe ba nga ba nga ne da ngaa bëgg diine waaye doo mën a oyof sa kanam jëkkër doo nga jël sa jëkkër def ko morom très bien def def ko morom wala nga def ko ko gën mhm. benn mhm. ñaaral ba fiir ni jaahili fiire mhm. waaw ma fi wujjee waaw te yow yaa nga ca diine nangu mustaqim diine nangu naa lépp waaye wujje gi moom lu ma ko def ma maa ñee koy bokk bañ waaw Ah, léeg-léeg mu am de. léeg-léeg mu nga gis. ci conférence am na quartier yoo xam ne boo fa takkee ñaareel nu bala. Mhm. complètement ñun dañ lay bàyyoo. wala nga ci conférence ko xam foo tuddee yonent bi mu ne allahu akbar lam yor lépp mu jox la ko. nga dem biir këram gis digganteem ak jëkkëram ni ñu comporté woo wallahi oustaz nga ne xanaa kii du kee. jeex na. <laughs> jeex na mhm. loolu loolu seetaan mhm. di ciy liggéey. di ko liggéey ci xale yu góor yi. di ko liggéey ci ñoom. di di liggéey ci ki bëgg jëm daal ci yàlla. ya seytaan ne kooku laa soxla c'est important ka jaar fee nag. Mhm. sama nekk ci <laughs> na foofa la tax. na euh, foofa nekk ak sa borom kër itam wan ka ne oustaz sangama moo ma la gënal. Mhm. wala nga jël oustaz sangam mu tiim sa jëkkër itam. Mhm. bokkul ci woyof. ah déedéet loolu kay bokkul ci woyof. parce que il faut nga xam ne rek sa jëkkër mooy sa jëkkër. même bu jàngul. incha mooy sa jëkkër. mooy sa euh, <coughs> foofu daanu xalilu laa ka ma topp. oustaz xalilu. ma nga fële ca Paris moo suñu mbokkum naar Ndiaye. Mhm. ndeysaan mbokk Dora Sylla yaay wax léegi mi ngi lay nuyu. waaw ndeysaan la rendez-vous la fin kon nag Dora ñu ngi lay déglu. Mhm. Xalil nag li mu indi ci laaj moom tuure la ci suut laxasaab. Mhm. ndeysaan. Eh, aaya 35. waaw bisimilah doolo yegg na innal muslimina waaw innal muslimina wal muslimaati la wax eh, wal muminina wal muminaat wal xaanitina wal xaanitaat wa saadiqina wa saadiqaat ba coow la bëre ci penc ma média yi di jabali sa kër yonent bi ku ci nekk di wax la fa xew eh. daf daa woote yaa nisaa nabi waaw ba mu waxee yaa yoo yaa yoo ba noppi teg ci nag yaayu nisaa nabi yéen jigéen ñi yonent bi denc man yaati min kon bi faay saa ko jiitu ndeysaan ko yaa nisaa nabi mm-hmm. lastunna ka ahadin min an nisaa cër bi ngeen am jën jigéen dootu ko am. waaw cër bi ngeen am. Hmm. jën jigéen dootu ko am. ndax yonent bi sama boroom kër moom xew na. léegi nag waqar la fi na toog leen seen kër bu leen demati marché. bu leen duggeeti bu leen bu leen rooteeti. dégg nga. léegi nag bi mu leen toogloo ca kër ga. Hmm. waskur na maayut laa fi na ubbi leen ubbi leen téere yi ubbi leen alliwa yi yokk leen seen xam-xam xam nga lu tax ñu ne ko lu tax mu ne innal muslimina wal muslimaati aadallahu loo maxfiratan wa ajran azima ndeysaan waaw wal muminina wal muminaati hmm. aadalahum maxfiratan wa ajran azima ndeysaan <laughs> wal xaanitina wal xaanitina wal xaanitaati hmm. aadallahu lahum maxfira wa ajran azima wallaay ndeysaan wa wasaadiqina wasaadiqaati mm-hmm. aadalaaw lahu maxfira mm-hmm. wa ajra mm-hmm. athima wasaabirina wasaabiraati sëñ Mbàkke xool ko rek ilaha illa <laughs> li may pari xanaa li mu leen bëgg a wax lépp mooy bu leen ko góor manal waaw waaw <laughs> bu leen nangu góor man leen ci jaamu yàlla jullit yu góor yi ak jullit yu jigéen yi way gëm yu góor yi way gëm yu jigéen yi noonu la ko toppi noonu rek la ko toppi nga xam ne ñoom la yemale même classement même classement buñ leen ko mënal buñ leen ko mënal de lam waxoon su lan waxoon Mariama rek. Mhm. Mhm. waaw. Mhm. warka'i ma'a raaki'iin. wallaahi ndeysaan uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'a raaki'iin. jeex bu la ko génn góor mën a. <laughs> waaw <laughs> loolu kon boo jëkkee boo jëkkee ci li ñu tuddee parité tey. alxuraan da wax ne kon kon kan góor jigéen ñi ñëpp a waaye niroowuñu. waaw niroowuñu. wa sukran ci laajam bu am solo. macha allah léeg aaya ji bu ñu waxtaanee parité nga dégg ñu jël ko. waaw ah. donte ñun oustaz yi ku ne ku nekk anam gi mu koy jël. loolu waaye daal ci yi ñi sukkandikoo la bokk. waaw hmm. dañu naan la fu yàlla tudd góor tudd na fa jigéen nangam nangam. <laughs> Hmm. waaye ñoo yem waaye nuróowuñ. nuróowuñ macha saal mu ngoog moo ci topp suñu bàggee. waaw koy moom de oustaz mi ngi eh, jaajëfal baax a baax nee na jigéen ju am day naqare yor loolu la bind. waaw Oustaz Mbaye dafa mel ne laaj boobu xawoon naa nuroog laaj bee fi jaaroon. waaw incha allah la kay mm. moom itam yu mel noonu euh, yomb lool lool lool. waaw ku la am ba ne géej. Mm-hmm. ba ne tooy. Mm-hmm. mu jeex. waaw ci jigéen ñi loolu dana baax lool. Mm-hmm. ndax li maali xaajaa taxoon. maali xaajaa <laughs> am na solo Babacar Ndiaye moo ci topp. Euh, jërëjëf euh, Saliou Diop jërëjëf Babacar Ndiaye Oustaz. Babacar Ndiaye Baye Fall ah. waaw ci yi Oustaz Alioune Sall bokk moo tax mu wax loolu. waaw dëgg la Baye Fall kon nag ñu ngi koy nuyu baax Baye Fall di nuyu suñu bi nga xamante ne mooy capitaine. Mm-hmm. macha allah alaaji ñang. Eh, eh, nu mu tuddee. alaaji ñang alaaji ñang alaaji ñang. Mm. ñu koy nuyu baax a baax. waaw ndeysaan. oustaz euh, na. Mm-hmm. day laaj surtout tiin. Mm-hmm. tiin wax saytuun. ba ba mu jeex. waaye nee na bu bu bu alay salaah bi ahkamil hakimina dañuy wax ni balee. waaw muy laaj lool lan la. jërëjëf ci laaj mbaamu solo bi. wa tiini aw saar la woo xam ne oustaz Alioune. ñetti pàcc la def. bu nee wa tiini wa zeytuun mooy benn yonent ngi nii boo xam ne daf leen yoroon ci benn benn école bu tuddu zeytuun primaire la mu jàngal leen ci wa tuuri siiniin beneen pour jàngalekat boo xam ne daf leen yoroon ci école bu tudd tuuri siina jàngal leen seconde mm-hmm. wa baladil amiin di benn yonent boo xam ne école am mi ngi tudd Hazal Baladil Amin. moom nag université la. bëkkale jàngalee ba ngeen at mi. jóge fi mu nekk dugg ci école kii ba at mi. bi ngeen ñëwee ci moom nag léegi. laqad xalaqnal insaana fi ahsani taqwiim li ngeen soxla woon ci xam-xam. jikko rafet. jom. ngor. jub. fayda lépp. école bi moo koy def ci yéen. su ma radnaa asfala saafiliina ku fi sàggan nga redoublé nag sa bopp nga ko def. <laughs> macha allah. waaw macha allah lu tax ñu naan balaa. xam naa moom dox balix waaye balaa la ñuy wax. wala mm-hmm. balee. mooy ilimaan daf ñoo laaj ñun ñu ci ginnaawam. Mm-hmm. alaysa allahu bi ahkamil haakimiin. ndeysaan ah, ndax dëquma atte attekat yi. Mm-hmm. ñoom kañ. ndax dëquma la na atte. si démb kañ. nga ne ko balaa. ah waaw. mas mm-hmm. naa dégg cee jamono. waaw maître Wade mas na koo wax ci benn àtte. ndeysaan mm-hmm. waaw. génn grand bu bule bi daal yëkk yëkkati loxo yi ne alayhi salaahu bi ahkamil haakimiina. ma nga ci alxuraan mu ne ko balaa. wallaay loolu moo tax su ko su ko imaam waxee. ak alaysa dalika bi xaajin ala yu xiyal mawta mhm. foofa am na balaa fi am na balaa waaye borom xam-xam ñoom Abdul Abdul Ahad Sane ñi mel ni ñoom mhm. dañuy wax ne balaa yii ci tiini mhm. moo gën a dëgërub addis balaa ji la ca xiyaama wa shukran ci laajam bu am solo bi tubaarkàlla tubaarkàlla tubaarkàlla jërëjëf <laughs> loolu am na solo ci soratu tiin mi ngoog tiin mi ngoog kon nag bu bàyyi faal yi laaj bi egsi na am na solo ki topp nag dafa dem tur bàkke waaw euh, neen daal moom euh, lu yàlla wax ci euh, lan lan la wax oustaz. Eh, oustaz hmm? Mbaye lu yàlla wax. farata yi waaw farata yi farata yi julli wala farata yu demee noonu daal lu ci yàlla wax. waaw nee na da ngay wax ni nangam farata la ñun la waaw waaye. waaw loolu la bëgg wax hmm. euh, maanaam ñu ne nangam de farata la lislaam loolu la wax ñu ne ah hmm. faratal de waaye nangam. loolu ci lislaam wax loo xam ne waaye nag. waaye jooju mais waaye lu di ca war a di ca war dafa war a dañ. incha dafa a dañ. Serigne Mansour si borom daar ji moo daan wax ne. bu la yàlla digalee. Mm-hmm. boo ma nee defal. Mm-hmm. boo mënul defal. bu la teree. Mm-hmm. boo ma nee bàyyil boo mënul bàyyil. Mm. waaye lii lii farata mais. muur dañ ko sant jigéen mais. yooyu mais yooyu def na na dañ. def ca la nga mën lépp. waaw ittaqullaha mastataatum waaye naan mais mais mais yooyu seytaane moo koy dugal rek pour bëgg laa défier wala mu jàdd loola wallahu taala alam wa shukran ci laaj bu am solo bi Mali mm-hmm. mm-hmm. waaw jërëjëf jërëjëf mbokk yi lépp tur yi li ñuy sax jarul lépp tur nag wax dëgg yàlla waaw lu am solo la <laughs> Modou Guèye mooy tab oustaz waaw kitab Modou Guèye mm-hmm. Modou Guèye bi day surtout xadit lay laaj aaya 19 tombeek fi suñu borom di wax ni i'lamu annama alxayaatu dunia wa bay na kuma takkaasuru fi lam waali wala walaa di kamasala xëy si aajabal ko faar na baatu sumay ila axiri euh, borom bi subhaanahu taala hmm. ci sa ci laaya jooju hmm. daf ñu wax ne na ngeen xam ne adduna gii hmm. adduna gii mook pomee ci stade ba ñoo yem dugg baa jëfaay génn ak moom dañuy ubbuntu yi rek ñëpp dem <laughs> mu tas wi njënk fi ba fa dem nii doo fekk kenn wallaay mi ngi mel tey nga demoon màkk rek. Mhm. dem mun a. Mhm. jëlal tànt yëpp. Mhm. <laughs> maa maa ngi dem dañu fa après. Ah, après jeex na. wala nga dem ca jamra ya. waaw maa nga dem arafa. mu ne wëyëng. nun la àdduna mel. <laughs> ci àdduna. nit ñaa ngi dem. waaw am ñuy ñëw. jamono dina ñëw ñëpp dem. dëgg la naa ko ci Dakar dem dikk yii. bu déparé fi muy déparé. day fees dell. àgg ci arrêt am ñu wàcc am ñu yéeg. la mu àgg ci arrêt am ñu wàcc am ñu yéeg. wallaay waaye bu àggee tribunal bële ci biir dakaar ca. ñëppay wàcc. Lat Joor Lat Joor. Mm-hmm. mu taxaw ñëpp xanaa fa waaye ma la xiyaam jeex na <laughs> are bu ne am na ku wàcc mooy ko faatu am na ku yéeg mooy ko judd waaw wóore waay muy daw rek muy daw rek eh waay waaye la jor oustaz na dugg ci embouteillage bi ndax mu yéex a àgg <laughs> ah mu ne kon adduna gi am po dong la ah, adduna gi am po rek la dégg nga walahun lëhu nag moo gën a doy waar lëhun mooy po mi nga xam ne ñi koy woote am pecc la walay way waaw booy dugg paas lu seer waaw yi mu décoré di xuyu kamaj jeex na booy génn doo fay dara mhm. adduna ji wa ziina waaw taar la taar rek tabax yaa gi rafet yi macha allah bisa ngi ñëw mhm. wa tafaaxurun baynakum allahu akbar tafaaxur mooy kenn ku nekk ne man diwee sama maam. Mm-hmm. Ah, man borom sàngam laa bokk. Mm-hmm. man nangam laa mel. loolu nag lu xew la léegi oustaz. Eh, waaw eh. xewoon na waaye daa gën a xew. waaw jéema a sa bopp. wa takaasurun fil amwaal. Mm-hmm. ak ëppalante alal. am na ñoo xam ne fii li am ci banque bi oustaz Alioune. wallaay mënuñu ko lekk seen bokk mënu ko lekk. dëgg la te duñ ko jox seen i bokk duñ ko jox def ci diine ji. wallaay ba xëy faatu ma des fa. mën na milliard laa xam lu ko nit jéem doyee. mu ngoog. wa tafaaxuran la wa takaasurun fil amwaali ak wal awlaad wal awlaad maa la ëpp doom maa la ëpp mbooloo mu may àndal ñi may àndal mooy yi yor sunu borom nañu ma léebal leen ka masali xaysin ajabal kuffaara nabaatu moog nawete yam nawet day dem ba yéem baykat mhm. ñax mi wër ko fu bu ko neexee gubal fasam ko neexee nangam waaye su ma yahiju fa taraahu musfarra su ma yakunu xutaama la la day xëy rek di lax ba mboq waaw di lax ba wow koŋ wa fil axirati azabun shadid wa maxfiratun min laahi wa ridwaan ndeysaan alaxira nag ñaar rekk fa am hmm. azabun shadid duma yu métti yàlla nañ ci mucc amin wa maxfiratun min allaahi wa ridwaana ak suturas yàlla ak ngërëmam. yàlla nañ ko am. amiin wa shukran ci laajam bu am solo boobu. macha allah jërëjëf tontu lu am solo la te loolu rek doy na sëkk aw waxtaan. Mm-hmm, mm-hmm, ndax yi mm-hmm. neex ci adduna ajabal kufaar bi moo ci gën a daaneel. waaw yi neex ci àdduna yëpp nekkati yooru dara. <laughs> ajabal kufaar dana baatuhu waaye. ayca. ayca Mbacke ki ci def mooy te ki ci mujj mooy suñu mbokk mu baax. waaw mooy a bokk atum baarak. Oustaz Lamine Sarr Lamine Sarr buntu Pikine waaw. sa mbokk mu baax moom sëñ Mbàkke tubaarkàlla moom mbokkum daara la oustaz indi na ay taxalixaat yu ama am solo ci mm-hmm. jigéen ak mm-hmm. ni nga xamante ne tàmbali woon na caa dugg ci ñëw ak ñun ci baat bi ci boppam rek boo ko mm-hmm. waxee maanaam mi ci nekk yépp euh, te arab di ko wooyee noonu moom laa doon junj ne ci la bind moom bi muy jeexal njàngam keroog ba mu ñëwee dañ fàtte se maag moom ca kër gi ci semaine bi mu ñëwee waajur wa góor ga Ibrahima Sarr ndeysaan Babou Salam ne ma yaaw Saalum Sall ma ne ko waaw mu ne ma yaakaarul ma fee nekk lu bari mën ne ko lii loolu mu ne ma damaa ñaanoon yàlla bala maa faatu naa la gis mm-hmm. te gis sama doom ji jàngi woon ngeen bokk te su ci kër gi tey laa ilaha illallah cey ñaanu mag <laughs> muy dëgër dëgër keroog dafa xam waaw ndax moom fa yóbbuwoon mm-hmm. ak yi ca teg ci wax mooy Lamine Sarr mi daara la Babou Salaam. ñoo ngi ñaanal suñu mbokk ma kan. yàlla na yàlla saax dafa tawat. amiin yaa rabbal aalamiin naa danañ ci dellu si beneen incha allah. amiin yaa rabbal aalamiin. jërë ngeen def kon nag sëñ Mbàkke. Euh, Oustaz Alioune waaw incha allah ci kanam rek dinaa desewaat ci wàllu jaar jaar yonent yi maa ci Moussa ak Xaaruna hmm. bu guddee dinaa ak imaam Mor Seck incha allah léegi vingt deux heures rek la ñuy tàmbalee ndax heure bi jeex na ko nam nañ ko waaye moom bis mu laaj ndeysaan laajte laajte ba ma waaw ah, boo ko nuyoolee soxna Jamila rek mu kontaan waaw ah. ah. kon nag ko waaw boo ko nuyoolee soxna boo ko nuyoolee imaam Mamar rek moom daanaka kon nag nuyool naa la soxna Jamila Mamar <laughs> mi ngi lay dégg de góor gi xamtu <laughs> incha allah oustaz boo noppee ci tafsiru quraanu karim bi rek danañ ànd ak mbokk yi ci suñ jotaay boobu di xamtu tabarkalla man maa ci inna baal dani ismun tabarkalla tey war a nekk suñ ñaarlu daje incha allah nag lu jiw a jeexul fa jógu fa lu jub ci wax ji suñu borom lu jiw du moom ñun ñëa yàlla na yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir ci def ci suñuy poos dara wassalaamu aleykum wa wa barakaatu أما الجبال بما ودايه